waaw ñoo ngi si deuxième partie interview bi ah, ñu bàyyi Mathia mu suuf la tuuti ñu léegi nag Mathia léegi Mathia après nga génn foofu dugg si làmb da nga commencé par mbapat je pense c'est la vie c'est la vie mon émission bi mo ngi commencé yàqu mon frère nga jóge fofu dugg ci lamb mon frère na nga duggé ci mbapat na nga duggé ci lamb wa lamb comme non rek. hmm nek ci kon bi ñuy bërindu ñun ñëpp ay Seer djouf Kéré ndjay wallahi Nar sayyidna Mama bou ndjay Mama Kanji Aada Moussa Ndiaye mhm. Papa Boy Djiné ñee ñoo doon ànd bokk bu xale suñu group Cheikh Diouf moo fa doon bëre ak Papa Boy Djiné man jour laa woon dama doon football hmm. Cheikh Diouf ak Papa Boy Djiné ñoo doon bëre si groupe bi man jour laa woon football la ma ñëpp xamee woon moom laa bëggoon ba ma nekkee jógee ci football gis leen di ànd ak ñoom ay mbapat Cheikh bu bëree tey beneen dimanche bi ñu yóbbu Papa Boy Djiné ambition bi neex ma fëggu beeg yooyu ma dem ba ñett ma nekkoon troisième personne bi hmm. nekkoon troisième personne bi di bëree papa di bëree gars yi di bëree Aziz Ngom dem si yàlla si yàlla na suuf woyof si koom Seydina Mohamed teeru moom tamit sama digg mbapat temps mbapat digg mbapat la gaañu génn àdduna. Oh. ñu naan ko Aziz hmm. di ko ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee. Hmm. yàlla na ko Seydina Mohamed teeru yàlla na suuf woyof si koom. di ko xamal frère fàttewuñ la boobu ba léegi ñaan yaa ngi sa kaw. Hmm. yàlla na ko yàlla nangu. dañuy ànd di mbapat di defandoo lépp ak Ahmed Sow suñu benn xam xarit boo xamante ni tamit dafa bëggoon dafa nekkoon ci voyage yoonu Espagne yàlla def nëbbuñu ko boobu ba léegi xamuñu mu ngi ci leer xamuñu mu ngi ci lëndëm mu nekkoon suñu xarit tamit ñu doon ànd temps booy moom yàgg ñoo sonn si ñun mbapat tisat yi moom wàllam lañ ko joxoon moo ko doon jug di defari man sama mbapat yëpp moom moo géré woon wàllum tiset wàllum organisation te boobu ba léegi kumpa lañ ci am saa su ne li may wax rek mooy ñu ngi koy ñaanal bu dee mu ngi ci leer yàlla na ko suñu borom nit ba indiwaat ko suñuy loxo ak loxo fameem ay loxo waajuram bu dee mu ngi ci lëndam yàlla na ko suñu borom àtte ci yërmandeem àtte ko ci yërmandeem yàlla xaaree ko ci àjjana yu kawee ci àjjana yi sedd ya parce que nit ku baax la nit ku mënoon a sonn ci nit la nit ku yëfu jaambur doon tardeel la yàlla na ko suñu borom sàmm ba ñu defee ambition boobu ñuy ànd di may mbapat ñu dem Cheikh Diouf bàyyi mu des man ak papa booy jinne ñoo desoon di mbapat boobu ñaabu ndaw suñu rakk la moo ñu doon ñawal gàllaaj yi suñu musaana dem bu ñëwee mooy ñaw gàllaaj yi bu ñu ñëwee gàllaaj yi ñu ànd ba làmb ja dañuy compter sax bàyyi ñaabu ndaw ci porte bi parce que boobu booy la woon quoi nekkul booy yooyu nag ñu naan ñoo ko magee nii ay deux ans lañ ko magee trois ans rek mais boobu ñun lañ xamoon ñun ñoo doon bëri boobu ñun ñoo doon bëri quoi moo tax te boobu moom mu ngi mbapat di ñëw dañ doon dugal gars yi ba pare xam nga moom day merci loolu ba bu xëy suba dañ koy woowaat ne ko kaay ñawalaat ñu xam nga ñawalaat hmm. ñu nekk benn ko quoi ñun ñëpp hmm. di mbapat léegi ba may mbapat 2011 problème mu crime am koñ ba mbër bi doon bëre muy bébé Balla Gaye xaarim guñ moo doon bëre làmb ñun moom lañ bokku nañ écrit moo doon suñu tedd fi lu écrit ñu naan écrit bi écrit 37 fu boobu mm-hmm. di entraîner Joseph Correa bañ demee foofu ñun ñëpp ñu ànd mouvement dem làmb ja yàlla def fa ndogal bakkan root fa ba ko bakkan rootee ñun ñëpp ñu jàpp ñu arrêté ñu man bañ jàppee mbër mi man lañ si teg man lañ jëkk jël si waat bañ ma jël si commencé jël ñi ñeneen ñi benn par benn benn par benn benn par benn bañu ñu mat presque ay suma ma ay 13 personnes 14 maton nañ ko ay 13 bañu ñu jël see ñun ñëpp ñu ñëw ci brigade bi ñu lijeenti lolu am ño xamantene dañ leena téy téye ñoy coupable yi libéré ñu ñun ñu libéré ñun ñu bari am ay eh, 5 personnes ñu defeere jarul may dugat ci cas boobu parce que cas boobu rek géré nañ ko quoi nekul cas boo xam ne war naa see xuus dugg fa damay damay damay ki rek bref rek comprendre nga bañ defee ñoom ñibbi si ñu annulé làmb géejawaay ñu ne légui mbapat jeex na way ku bëgg bëré bëre na nga wuta licence dem ci arène bi hmm. mbapat annuler mbapat annuler mbër yi yéeg ñëpp dem topat seen liggéey hmm. dem topat seen métier man may dem kam di bëri ci tournoi hmm. li may wax sangal kam xam nañ ci dara parce que Sangalkam moom far gara boo fa taxawé bo né match après la kenn du xamuñu ko ba ma ñëwee dem Sangalkam di bëri ay tournoi di jël ay saaku ceeb foofu drapeau di ko indi commencé affaire bi commencé am ambition xam nga nit ñi commencé Mathia de mu ngi làqutu di bëri ji Mathia ngi làqutu di seen doom yi am ñoo xam ne ah xam nga Mathia daa dëgër boobu toog leen topp leen ko nangam sangam booy gumba taxlu rek gumba taxlu rek di ma dooleel nànk-nànk di ma dooleel nànk-nànk ba benn jour Alioune Seye am ay kayit di def anniversaire am am ay kayit mu ne day def day kii da koy def làmb quoi anniversaire am jour boobu noonu Pape Sow la tuddee woon drapeau bi léegi ma dégg loolu fekk Alioune Seye monté na combat yi ba combat yi jeex ma daw ànd ak sama gaay yi groupe ñu daw dem kër Alioune Seye mu toog ci bunt kër gi nii boobu Alioune miinu ma sax. ma ne ko waa mais père père yow gunaas yow fii war nga fee tëgg làmb nii te yow man duma ci bëre. Hmm. mu ne ma non fils fils làmb ji jeex na ma ne ko jox ma kalanda. xam nga mu woo kalanda kalanda ne ma yow man du ma sa morom ma ne ko yow jigéen xam nga ñu werante foofu xam nga mm. werante bi tàng bañ nar a taxawal ma kalanda ñu xëy mu woo ma ne ma non kalanda nee na bëriwul ma ne ko non père man combat bi mm. ñu ñëw bañ ñëwee ñibbisi mu woo ma suba gi dama kaay benn mbër fi des ñu naan ko Bécaye école Balla Gaye bëri na quatre combat arène nag ma ne ko garaawul mm. boobu maa ngi tuuti mu ne ma yow booy yow da nga dof de ma ne ko waaye père garaawul xanaa du combat jox ma ko mu ne ma kaay jël sa avance ma ñëw mu jox ma 3000 francs ne ma sa avance ma dem pare ñu combat bi kuñ ne Mathiax Bécaye rek ay naan waaye yéen Mathiax ñi xanaa dafa dof kii wérul de boobu Mathiax xamul arène sax ñu jox ko mbër bi am 4 combat arène làmb jooju Liiru Jaañ moo ko doon arbitre léegi Liiru Jaañ moo la ci mën a waxaat yu bari mm-hmm. moom Liiru Jaañ jour boobu la ma gëm ba tay Mm-hmm. parce que géejawaay ñu ma gëmoon bariwul de. Mm-hmm. mais jour boobu mbapat mi ngi am CFA Pape Sow ngi toog ñëpp a ngi toog. Mm-hmm. ma ñëw dugg ci géew bi Bécaye dugg ci géew bi sama supporter yi di jàpp sama tànk Youssou di jooy ne ma doo bëri. parce que kii da lay rey. si laa fëggoo sama tànk dem taxaw ci géew bi. arbitre na ko pare nga ne ma pare nga mën ko waaw ñu bëre mu dëpp ma nax jaay ma tëdd doole sol ma buddi ma ba si kaw. est ce ñëpp di yuuxu nu may dóoree suuf ma def rek prise ko. rek mu ne rap down rek mo juk lamb ji tass grand combat amatul dara amul te boobu maa ngi doon bëri ay sixième combat. Mhm. lamb ji tass ciow li nek fa jaxaso liru jagn gay ne dafa sàcc warul won joxe victoire lamb ji tass jar fa. Mhm. nek te promoteur bi pap saw bayina ma xet dama xey suba fatana dimanche bis ñu am match terrain wàll daan di football sam ben grand njawar daw ci terrain bi ne ba match amna borom 4-4 bu lay set mu ngi tëli ba taxaw. Hmm. rek ma takk football bi noonu ànd ak njawar daw ne ma kenn remplacer ma ñew pap Sow dama bëgg ñu dem sama kër bobu mu ngi dëkk mbaaw hmm. bañ démé kër mbaaw ñu toog añ supp kanja dama ko mësa faté <laughs> ñu ngi tok man moom ñawar mu ne ma légui dama bëgg pala la dama bëgg dimbali la dama bëgg légui sa licence nga jox mako ma bolé la pala mooy pala per paala ah, pala mais pala paala pala ah, paala per paala pala waaw pala waaw comprendre mu ne ma boole la per mu nga bëri sama journée bi jaaji or douze ans yaa ngi dégg ma ne ko per loolu rek laa bëgg xam nga mbër bu mu am licence nga wax ko combat arène xam nga expliqué ñu añ ba suur jabaram génn ñu waxtaan affaire yooyu mu ne ma léegi leen di nañ dajee am na fu mu wax nañ dajee nga indi ma carte bi ma ñëw indi ko sama carte d'identité bu sama carte mu jël carte d'identité bi yóbbu ko paala sama pap paala sama pap paala ne ko booy bi matagul pour bëri arène as bi mayu ko mu bëri arène Mm. Pape Sow na ko sama journée bii faw booy bu bëri si loo ci mën a def nag lu ñu laaj dinañ ko fay pour booy bu bëri si Palla ne ko kon xanaa ñu dóoral ko ko simple. Mm. mu bëri si simple parce que matagul arrêt. Mm. ñu dem CNG simple bi sax dañ koo bañoon ndax dañoo ne matul waa CNG ñu négocier ko bañ taf ko simple. moo tax combat jaaju hors douze ans maa bëri deuxième combat mag pox poxu. boo xoolee internet bi 2STV combat boobu di nga ko gis yaa ngi gis. Mm-hmm. bu ma bëree làmb jooju noonu parce que kii téye ma nag pap kii pap saw pap père pap saw mm-hmm. téye ma occupé ma nag mm-hmm. jël ma di ma tëggal stade njaarim ay làmb ay làmb arène bëri naa fa ay ñaari yoon stade njaarim si la paala nag si la pap nag kii pap saw waaw père saw mu bàyyi mu bàyyi nekk si ay affaire voyage bàyyi si laa toogaatoon bëreetuma waat ma arrêté waat bëri toppaat football bi. Hmm. diire boobu laa xawoon na majeur nag. nekkaat nawetaan di football kade. kade waal daal ma dem final trois ans. Hmm. xam nga yëpp yoo xamante ne samay samay tànk lay jugee. Hmm. comprendre bu ma demee final trois ans quatrième année bi ma monté senior. ma football senior benn année bàyyaat fekk làmb ñëw ñoom papa booy ji ñibbisi. gunaas neexaat xam nga gars yi songaat làmb ji ma dem dugaat ci làmb ji. si laa commencé suma papa Dieye jël ma boole ma ak laxaat Ndiaye. xam nga papa momu ñëk boole woon ak Abdou Lahad sax né hmm. papa da boole woon si laa bëri wé sama combat 12 ans bi hmm. bobu après c'est la lak jee ñëwee jëlaat ma né Abdou Lahad denk na la ki si la ma Abdou Lahad jël duma duggal ci ay journée jé hmm. sa bu jé di tëgg rek duggal ma ci sa bu jé di tëgg rek rek nonu mooy bëri ci arène bi di daan di daan di daan nonu jé di ma tëgg jé di ma tëgg ba tey jii ba tey tey ay ku ci melni sam production tëgg ma ku ci melni ni Gibson production moom ma njëkk a grand combat. Mm. suma mag bobu mm. diko sant diko ci gërem mm. parce que bu ma defee samay preuve ba paré mo njëkk a décroché ma ci préra. pour grand combat. ah mu nekk lo xamantene lima li ma yëg la kan? waaw man ak Sabaa. ak Sabaa waaw moom ma njëkk a arène nationale. ñaari espoir nga jël leen arène nationale numéro yé nga leen. yeen lay jox grand combat. kon lolu nit munoo am lu ëpp loolu. munoo am lu gëna reuy lolu parce que kooku lu fée sa carrière tamit mom amna ci part de responsabilité. moo tax. xam nga. léegi si la Sam ñooy décroché waat grand combat yi xam waaw di sant yàlla bu baax waaw ma ngi keere Sam décroché ko grand combat moom yëpp yàlla di ma suturaal. maa sumay nit. ànd seet sama staff yi. ku si mel xam nga waa mbaar bi. ñoom ñi nga xam ne tey metti woon na ñuy dégg lu ne. tey ñoom ñu toog muñ taxlu jàpp xam nga ba pare lu ma si gën a neex moo mooy ñoom ambition bi ma am ñoom moom la ñu am. muy waa mbaar bi. benn ambition boo xamante ne mooy tey du ku medd ki la ñu war a déglu. Hmm. wala ñee la ñu war a déglu ba war a décourager li ñu doon. Hmm. mooy li ñu doon ñoo koy def suñu bopp du kenn ñee di wax ne dañuy yàgg yàgg rek mais ñoom ñooy ñëw mel ni dañ laa bëgg. Hmm. ma ne ko nañ gëm loolu ñu dox ci ambition boobu loolu ma leen doon gëm loolu ñoom ñoo ma ko njëkk a gëm. wallaahi zim. damay toog du ma entraîné toog koñ ba. billaahi wallaahi tallaahi ñu jug lu ne gaaruwaale wax da nga lay wax ba yow da ngay ruus da ngay xat ci koñ bi. doo bëgg toog si kon bi quoi da ngay xam. Mm. parce que da ngay xam même pas lu ñuy wax dëgg la mais tamit toog bi ngay toog ñoom nga toogal di waxtaan te neexu leen. kon passant heure bu jotee kon bàyyi leen ko nga dem entraîné ñu yokk si man lu bari. Mm. mbaar bi lu baree bari bari. Mm. gunaas ñëw na leen dolli ma may romb ay grand frère ñu téye ma dara si conseil ma wax ma lu baax lii yëg lii yëg lii xam nga di romb ay xam nga. xale yi booy ndaw yi xam nga ma xam ne man di gën a encouragé sama bopp quoi. di xamne yalla bari na sutura da ngam ngam mo la téye ba ngam ngëm-ngëm ba léegi te ngam ngam Wallah teye ba kero hmm. wallahi zim du nit bo may arrêté ngam ngam bima nek wallahi hmm. billahi wallahi wallaahi ci lay nek ba kero yalla nan li la mais du doomu aadama mu mën a dede parce que man sama bamay bamay bamay jël sama décision doomu adama la tagu mais nga dan bañ kay ba léegi am nga ay proposition combat je pense ah ñu ngi may wax ay combat ñu ngi may ay combat moom. mais am na combat bu neex de. ban la non père. tey moom wax dëgg fa yàlla dama laa ruus. Mhm. te suma papa nga. Mhm. comme ni ma ko waxee woon moo du ant rek. Mhm. afam làmb yoo xamante ne dañ siy waxtaan nii rek pour mbër lañ ñuy mbër kenn rawul kenn. mais suñ demee ba siy dégg ay baat yi nga xam ne baatu dépassé ndax neexuñu. te mun na indi leneen. ci après hors làmb. mu ci nga motivé wu téye sa bopp. bañ a dugg foofu quoi. Ah. question yooyu xam nga ñu relevé ko. mais am na yeneen adversaires yu sa kanam. waaw bëri na comme kan. bëri na gars yi ñu ngi démarche ay Tidiane Faye fi ay Koulibaly Faye ngi fi. Mhm. comprendre nga. yow Koulibaly Faye ngi fi xam nga ah waaw. yow Koulibaly Faye ñaar dem la yow Pape Ndoye ñaar jariñoo ngi fi bu caaroy. Oh. xam nga waaw. sama booy ñàkk parce que ñàkk jaruñu bu caaray amul combat kay amuma combat kay. te dafa jaar si dafa jaar si sa Jackson waaw ñëw na si Jackson dafa jaar si Alioune Seye 2. waaw moo tax léegi nag. mais combat bu bëri woon coow mbaa xeex boobu. waaw léegi nag ñun loolu lañ bëggoon rectifier boobu ñëwuma stade parce que dama amoon combat. Alioune Seye daa waroon bëri dimanche bi ma bëri dimanche bi si topp. waaw looloo tax ñëwuma ko. février 2020 ñoo préparé ndoo combat bi yëpp. ah ba Z max Alioune Seye ko ànd matinalu ñoo ànd saal ñoo doon ànd lépp ba waaye suñu yëpp ñoo ko doon ànd daal. Mhm. semaine combat bi sama kër laa ko seetaanee mhm. parce que boobu laa waroon bëri dimanche prochain mais yow ñàkk neex na de. waaw ñàkk jariñ ñoo ngi fi xam nga. PAM doy PAM ñëpp a ngi fi pare naa. Tidiane Faye man père. Hmm. billaahi wallaahi dafa pare pour làmb may sens parce que. jom ak fulla ak jambar, bu ma indi fii. Hmm. gars yi waroon nañ xool loolu. Hmm. ba mun ma may sens. parce que man boo xoolee fii samay jeunesse sama génération yi ma fëlandoon ci làmb. billaahi dañ leen a may loxo di leen sukkandeku te ba tey rawuñu ma. ñu ngi bëreel ay grand frère Mm-hmm. di bëreel ay mag. Mm-hmm. di bëreel ay ñoo xamante ne làmb xam nañ leen. Mm-hmm. te ba tey nii ma waxee yow sama jom sama jàmbaar ma téye. kenn rawu ma ci. doo si tudd kenn. ñu ne la màcca ñu ne la déedéet. parce que lu si am solo am si important. mooy bëre daan. te yàlla mu ma koy defal mu ngi may suturaal. donc gars yi gis ngeen jël leen match bi boo leen ko léegi âge bii bu si kaamee dina métti seen de dafa am ngëm-ngëm te moytu ma mbër mu am ngëm-ngëm nit bu am ngëm-ngëm. gars yi jël leen ma ca gaaw mu ngi toog si ay victoire toog si ay ndam Sambay jox ko jox ko ñàkk jariñu wala Pape Ndoye wala Coly Faye 2 yooyu ay combat neex la wala Tidiane Faye donc yooyu ce sont des affiches yoo xam ne mun na bëre ak sama booy bi nga xam ne mooy Mathieu. mais Mathieu ñu dugg nag si actualité lamb bi ñu waxee sa jaar-jaar wax sa jaar-jaaru mbapat ba ba ngay dugg si arène mais temps yi moom lamb ji euh, Mathieu lamb ji mu ngi dox wala doxul. lamb ji doxul père. soxlaam maanaam suñu sorte boobu ñu génnoon fii. Mhm. tey man ma wax ba may wax défendre ma kenn. Mhm. waxuma si tur kenn. Mhm. dama wax si Mathia Pereira. da doon toog euh, saison. bari ñaari combat wala ñett. tey Mathia tey amul nit bu mun a taxaw ma lay jëlal part di la waxal te nga am sa làmmiñ am sa carrière ma am sama làmmiñ am sama carrière di la waxal. mais dama wax ngir sam bopp. mooy tey Mathieu da mu bëre ñaari combat si saison bi. wala ñett tey am lu fi jot am lu ndaw mooy mbëri def coalition. ànd def benn conférence de presse wax. tey loolu ñu wax noonu tey moo freiné làmb tey làmb freiné wu na. tey du ñun dañoo jug pour classe mbër yu mag yooyu. parce que kon VIP yi ñoo freiné làmb. waaw VIP mhm. ñoom lépp am nañ ko ci làmb. Mhm. yàlla teral na leen dimbal na leen. Mhm. te àdduna du neex ba ñu nekk ñoom ay noonu. parce que ñoo bokk métier bi te ñooñu ci mag. xam nga njëkk ñu si ku la jiit ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay tëw dëgg la mais bu la koy wax ci dëgg hmm. yaa ngi gis hmm. ñun dañoo gis ay répondre yuy ñëw yi nga xam ne tey mënoon na ñaax hmm. parce que xam na moo tax mënoon na ñaax ma ca pare naa day compétir te saison musul am te bëriwul ñaari combat ñetti combat tey lu mel ni saison am tey ma ca bëri doon xaar waat làmb ji kale si ban cause politique te làmb yoonu politique nekku ci comprendre nga

ñëw ba feewu combat bi ñu ne leen mënul nekk. Mm-hmm. Orka Mbaye Tine ma bokkal écurie. Mm-hmm. pare na làmbam def ci xaalis bu bëri ñu ne ko verdi mënatul nekk nga perte à yeneen làmb yeneen làmb yeneen làmb lan moo tax mu am politique. Mm-hmm. politique bi tey bu jeexoon lépp jeex politique bu du delluwaat si làmb bi pour sokkaliwaat làmb ji mu jug seen bopp lañ fiy nekkal kon ñun fa lañ doon waxee ñun mbëri yi nañu yeewu xam ne politiciens yi seen bopp lañ fi nekkal te ñun làmb ji lañu am ku nekk nekk nga li ngay nekk te kenn defuloo ko. comprendre nga parce que yaay xëy fajar dem géej nga xëy fa dem entraînement sa waa koñ dimbali la sa waa koñ jàppale la sa jàppale la dem yokku la doole ngay bëre yàlla di la may ndam sa àdduna di rafet xam nga macha allah te politicien fekku la ci mm-hmm. kon tey làmb ji mel nii gis naa si soq génn def si benn leeral mm-hmm. mais tey nit bu la woowee ni ko wuy ji waa léegi moom laa la wax dafa am yoo xamante ne nañ bàyyi leen mbëri mm-hmm. mbëri nañ bàyyi benn affaire du ñu wax du ñu génn wax seen wax comprendre nga dañuy dem di di am complexe ay nit di len jëlal pa avocat te monté président de la république bu wowe nit bu ngako ko ci mais est-ce que limu lay wax dina la arranger mais tay man car premier jour palais bi guuy gi ba ma wowe man ko guy gi da ngay dem mu ne ma waaw ma ànd ak moom ne ko def ma dem ba ma ñibbisee si buntu palais bi la taxaw ni li do arrangement wu lamb lima ma doon wax bébé Saalum ma ngi tok gaay ya ngi tok mané len li ñi di wax ni du arrangement wu lamb comprendre nga ñu génn parce que ñun chaque jour ñu xol boy yi ñun jeune yi ñun boy yu mënul ko yi lan lañuy def ba mëna am ci lamb té lamb yàqal la lu bari lamb tax nga bàyyi lu bari comprendre nga tey lamb jël nga indi ko ci politique tey politique bi moy lan ki sét na diw mais diw mu nga ko seet te doo ak moom man tay pap malik Ndour ministre de la des jeunesse tay amna wax ju mu wax tay bañ ma contacter woo xam nga luñ ma wax yéen mbër yi neexul ba neexul dafa bëri ay nit yuy ànd ak yéen te amuñu ci luñ jàpp ñun nag politiguñu yaa xam koo àndal du Macky Sall du Sonko yaa xam mais bëgg nañ jàppale lutteurs yi jël mbër bu nekk dix personnes sa ginnaaw nga jàppale la ngay liggéey ay problème mu pavage ne ko bu dee loolu la mun ne ah ma ne ko man dinaa la indil dix personnes ñu liggéey Ibrahima ñu ngi déggante ñi ma si waxal ñëpp kenn du si génn na ma ci waxul dëgg yaa ngi dégg bañ demee ñu yóbbu photocopie carte d'identité dix personnes yu war a liggéey ñu jël ñu ne ñëw leen place des souvenirs ñu ngeen signé contrat yi ma dajalawaat booy yóbbu leen place des souvenirs pour ñu signé contrat yi coow am fa wax am fa signé wuñu contrat yi booy liggéey moo leen tax jug politique taxu leen jug du liggéey bi moo tax ñu ànd ak Macky Sall parce que loolu lañ ñu wax dañoo ne bu leen neexee ngeen liggéey bu élection jotee ngeen xool ku leen neex ngeen ànd ak moom mais waxuñu leen liggéey bi pour politique la. tey man mu leen yóbbu ànduma ak Macky Sall. kon yow àndoo Macky Sall te man maa leen yóbbu parce que sama intérêt seen intérêt la te ñu ngi sonn ci man su ma gisee benn weer bu ñu leen di jox quatre-vingt-dix mille ma yéene leen ko ñu dem liggéey yi moo ko gën ma toog naan ànduma ma Macky sàll booy ñu dem lan moo tax. da leen di xañ seen wërsëg. leen xañ seen wërsëg. ànduma ak Macky Sall mais booy xaw ma ñu ñu àndal. dama leen di jël proposé leen ko ku mu arrangé nga dem. ku mu arrangé wul nga def ni man ne man ànduma ak Macky Sall. dëgg la comprendre nga. loolu mooy démocratie. mu mu arrangé nag ñi ma yóbbu ñëpp ñu dem si ñu ma yóbbu am na ñoo xamante ne billaahi wallaahi tallaahi Sonko la ñuy nooyee. mais liggéey baa leen ñor. Mm-hmm. luñ naan Sénégal na jeunesse bi liggéey. Mm-hmm. politique bi ñoru leen de. Mm-hmm. liggéey boobu ñu leen imposé. moo leen ñor parce que weer boobu ñuy fayee ko. dimbali seen waajur. moo leen ñor. tey loolu dangay dégg sax ku génn kii gis nañ ko si Pape Malick Ndour. kii gis nañ ko si kii. mais gis nañ ko si Pape Malick Ndour non man classe ma. man amul ku ma classe parce que man li may wax dëgg la. barki laa ilaaha illallaah mbëru VIP yi classe suñu ma man amuma si kenn ku may classe parce que tudd ma si turu kenn. dama wax loo xamante ne moo nekk. Mhm. ma wax ko. de kenn ku ma si. Mhm. parce que jëluma benn mbër di ko dóor ci xeer yi. Mhm. di jël sama bopp di ko def si ay efforts wala dara. comprendre nga dama wax dëgg bi. te ku déglu li ma wax. di nga xam ne kii dëgg bi la wax. mais ñoom déggante naa ak ñoom après wala. non naa seeg amul am na koo xamante Balla Gaye woo na ma. wax na ma. daf la classe wala. classe ma waxtaan diggante entre mag ak rak. Hmm. lañu waxtaan guy gi woo ma ñu waxtaan entre mak ak rak. Hmm. ku si nekk ñu wax. xam nga ma la hmm. loolu mooy cause bi mais ba deg dëgg bu jotee dañ koy wax. teg ko waxtaanee parce que dëgg dafa dépassé lépp. parce que ñooñu tey jii taxaw fii di jëlal ay nit avocat kii wax ñuy pare pour génn tontu tontu wuñu pour seen coobare dañoo tontu pour daw peloton. pour tafu ji si nit. pour nit ki ngay jàkkaarloo ben jour. benn mbër boo nuyu mu yëkkati dix mille may la quinze mille loolu ngay daw yow. Mm-hmm. yow dawoo dara. Mm-hmm. yow dawoo lu jeunesse bi di daw. yow dix mille la fi bàyyi quinze mille. kon yow jàpp ku wax rek. Mm-hmm. ñoom ñu génn. artel la tontu la parce que ñu xalaat dajeek yow suba. li ñu fay am. mais dëkk doxewul noonu. parce que lii ñuy wax bu ñuy wax ñii di génn di tontu loolu yëfu naa fekk la. parce que am na yoo xamante ne jarul tontu. parce que dëgg boo ko déggee munoo cee wax dara. bul jël part boo xamante ne yaa ngi wax loo xamante ne leer na la yaa ngi tontu. ki ngay tontu lu muy wax dëgg la te yaa ngi koy tontu ci ay fen te xam nga ne ci ay fen la koy tontu. parce que da nga bëgg ki ngay tontul nga am fa place wala nga tey suba mu dajeek yow yëkkati weccet jox la wala miinanteeg yow wala am ak yow benn benn benn kii bi. moo tax tey nga génn di tontu. mais tontu boobu amul njëriñ lu am njëriñ mooy ñu xool lu jeunesse bi bëgg. neewuñu la A neewuñu la B jeunesse bi tey ñoo fi nekk. tey lu mu metti metti metti metti metti jeunesse bi mooy yori temps bi suba. kon tey ñun ñii di waxal jeunesse bi ay jeunes lañ man mii di wax ak yow billaahi wallaahi tallaahi quatre-vingt-quatorze la mm-hmm. sama pièce bu fi nekkoon ma génne woon ko sans jugement sans dara parce que jugement da mm-hmm. nga man jeune mm-hmm. su ma xoolee plus de Sénégal exemple nekk mille personnes plus de neuf cent soixante quinze yëpp di xeex ngir avenir suba man may jeng di dem fenn du ma ko def dama naan man peuple bi laa nekk peuple bi laa àndal tey moom laa àndal suba billaahi wallaahi

parce que moo tax mu taxaw si caméra bi diw kay yow miy wax lii léegi Macky Sall def nañ la nii yow mii wax nii nii nii mais. nañ arrêté. boo taxawoon Macky Sall da nga koy dem def troisième mandat wala déet. non du ma ko nag jeunesse bi ànduñu si loolu. te lu jeunesse bi àndul man àndu ma si du si ànd tey du ma si ànd soo te billaay bu toogoon ma ko kon ne ko boo réew mi pour mu am jàmm. Hmm. Macky Sall man dama la xeexal 2012. Hmm. bokk si ñu la xeexal pour nga jël réew mi munoon lu ne munoon na ma faa dal. ren dama bokk suñu xeexal Ousmane Sonko ku nekk ak ku dal sa xel maanaam tey Macky Sall bu muy ñëw si ñun daf ñu wax lu dal suñu xel convaincre ñu ñu jox ko réew mi tey Ousmane Sonko moo ñu convaincre moo ñu wax lu dal suñu xel moom lañ bëgg a jox réew mi ñu lay doxee Sénégal amaat yeneen tànk am yeneen changement Macky Sall mébétam la doon def pare pour liggéey mais ñu mu teg côté am ay naxaatekat lañ dañ ko doon nax léegi nag nax bi feeñ na nii moom si boppam bu toogee dina xam ne man ñi ma fi tegoon pour ñu liggéey liggéeyuñu. boo toogoon Sonko. Sonko bu ma toogoon moom li ma koy wax mooy ndaw ngi ngir jëm Seydina Mouhamed ndaw li lii ñu tax lu gis si yow ba fan la bu ko mus a changé Sonko ñaan gi bii rek laa koy ñaan lii ndaw ñu Sénégal yi gis ci yow ba fan la bu ko mus a changé bul mus doxin beneen doxin parce que fulla lañ gis ci yow jom jàmbaar gaynde la gis ci yow nit ku gëm boppam nit ku gëm ay kàddoom nit ku am qualité lañ gis ci yow kon ngir jëm Seydina Mouhamed su xeex bi jeexee ñëpp xeexandoo ko ba yàlla sotti lépp bul mus a changé lu jeunesse bi gis ci yow. li ñu ko jàpp depuis def ko résidence ba léegi loolu la mooy saxaar depuis mois de mai fin mai. maanaam luy résistance man bëgguma juum quoi moo tax dama koy tojal. fi ñu ko téye noonu si këram génnul demul fenn. waaw mais pa mais papa père Iba Kane yow loolu xam nga dafa métti. Hmm. yow loolu yow mi di ma ko laaj. xam nga ni dara gënul métti. Hmm. nga toog amoo liberté. Hmm. dara moo tax ñu ne kaso ak mbedd bi. mais kasso ñak liberté bobu nonu mo waral ñu ne kasso dé waaw parce que amo liberté. wa légui sa kër nga tëj ma tay fi ni fi ni nga tëj ma fi man. nar ma fay tëj tay ne duma génn ci buntu kër du dem fenn awma liberté. luma ma fi munti am bu fesson del gënaluma parce que liberté boy lepp ci aduna mais nit ki tay personne bo xamantene tay ay ambition la am. jug pour jaayante. té lu mu jug pour jaayante moy damay défar Sénégal lu mu jug pour jaayante moy ndaw yi dañoo wara développer. lu mu jug pour jaante mooy lii dafa war a jeex Sénégal lii yoo war a am Sénégal mais loolu jeunesse bi gis loolu gëm loolu bëgg ko ci loolu mais tamit am na yenn temps yoo xamante ne boo ko bëggee si boo ko si bëggee def rek yaa ngi yàq Sénégal. nan nga dundee événement premier lakk-lakk yi lakk-lakk yeeg. yooyu yëpp sàcc yeeg yëpp lakk-lakk yi. Mhm. xam nga adduna fekk fii la la fekk. fii dafa doy waar. Mhm. parce que man Sonko laa àndal. Mhm. du laa àndal pour Sonko laa àndal parce que sunkoo moo ma wax li ma doy Sonko moo ma convaincre tey ma ànd ak Sonko tey ma génn def ay sorties devant la public wax tey événement am tey su ma génnoon tey mën nañ ma takkal lenn lu ndaw ne Mathia moo géré manifestation fii pour ñiy taal fii walla suba ñu mën la arrêter pour yàq sa réputation. Hmm. te yàlla dimbali nañ ñu am xel boobu am xalaat boobu jour boobu noonu. 24 heures sur 24 génnuñu ko suñu néeg fa lañ tëdd añ ak lépp sama néeg lañ mën a ma fekk lépp naas génn ma deuxième jour bi sama deuxième jour bi mu dëkk bi xaw a calme ma génn ñëw sama kon mu xaw a dégagé waat nit ñi di taal ma delluwaat sama gaale toog mais neexul kenn électroménager yoo xam te ne sa biir kër sama yaay di sa kër bakkan yi waxatee diggante xeexul xeexluwul ay kër yu ñu takkaloo ay palaasu jaambur ñu koy dajji xam nga yoo xamante ne mënoon na ñàkk si réew mi mm. parce que tamit am nañ njiit réew mi du réew mi def lu la neex am nañ njiit mais njiit mi tey su génnoon devant la publique def conférence de presse waxtaan ak askan bi lu mën a convaincre askan bi est-ce que gëm nga ni dara dina tàkk kon jàmm dina am. jàmm jooju nag moom la ñuy ñaan di ko sàkku fii Sénégal. Mm-hmm. tey mu euh, mauvais làmb ji ñu arrêté nii. Mm-hmm. neexuñu. ba pare tamit gars yi ñu arrêté. parce que li tax ñu arrêté mooy làmb ñu ngi koy yàq lu ne mais gars yi ñii ngeen di lakk tey frère gis seetaanaas koo xamante ne na mbër bii ngeen bu jarul dara. mbër buy ngémm lan moo tax ñuy wax Sénégal ñu leen di déglu mbër buy ngémm mais frère ñun ak yow ñoo bokk lu ñuy kaas ñun ak yow ñoo bokk lu ñu bëgg te ay mbër lañ ñun ak yow ñoo bokk lu ñu bëggal Sénégal mooy ñu topp Sonko mu defal ñu lu mu ñu wax si Sénégal te ay mbër lañ tey doo mere ñett mbër ñeenti mbër bëgg a jël mbëru làmb ji yëpp bëgg leen booy boycotté parce que billaahi bëri na jeunes yu nekk ci làmb ji tey bu dee jotoon dee dee dee pour Sonko tay ñom ñu génn jaay seen baxam parce que paré nañ pour ànd ak Sonko. bon Sonko bu ñu ko nee du bokk du euh, nekk présidentiel du bok lan lan mooy sa xala non loolu moom xam nga loolu bëgguma see sori. Hmm. parce que maîtriser wu hmm. mais Sonko bu bokul hmm. réew mi xam nga ni mu mel ni xam nga mais loolu bëgg nañu waxtaan si ñëpp waxtaan si. nañ ci waxtaan dialogue parce que lan mo lan lan moo gën a rëy guerre mondiale amul ci table lañ ko teg waxtaanee ko. wallahi mais tey Sonko bañ a. 39 45. tey Sonko lan la jeunesse bi di xeex hmm. lan la ñuy xeex hmm. tey nga arrêté Sonko ne ko bu mu bokk. Hmm. di jàng loolu mun nañ ko waxtaanee. loolu mun nañ ko teg si table waxtaanee ko. comprendre nga. gars yi ñu arrêté yooyu quoi làmb ji bëri na ñi nga xam ne. billaahi wallaahi tallaahi Sonko rek la ñu toog. yow yow gis nga ne Sonko ak Macky Sall war a toog waxtaan ñoom ñaar wala. mais jolo mais loolu dépendrul dépendre Sonko si def Sonko la dépendre. parce que Sonko luñ ko tek ci natt dafa bari Sonko dafa dem ba nit ñi yërëm ko Sonko bi day dem ak yërmande kuko xol sax sa yaram nga mun na toog ku ko nga joy parce que dañ koy xol ni sa bop Sonko kuko jël def ko ni sa bop rek wax di dina atté bopum mm. wa parce que natt nak ku ne lay dal de mm. mais natt bu yalla tek Sonko kum ko tégon mm. tay ngay dund vie bi no di nga sa bop jarul wax yee gars yi ñu bayat lamb ji xam nga ñu rafetalat quoi parce que xam nga làmb ji ñuy xas nii bëri na si ñi nga xam ne tey billaahi wallaahi talla ay élément lañ yoo xamante ne tey réew mi rek a leen ñor jeunesse bi rek leen parce que làmb ji booy ndaw yi fi nekk yëpp dañuy supporter jeunesse baa leen toog ñëpp koo si gis mu def sorteem jeunesse bi la àndal mais bu leen jël ñi nga xam ne tey seen làmb rafet na seen seen àjjana seen maanaam seen seen lépp baax na comprendre nga ngeen mere leen bëgg a boycotter làmb yëpp te plusieurs personnes ñu ngi ñëw pour bokk ci làmb te jeunesse bi la ñuy toog nañ ñu bàyyil xel loolu bu ñuy wax xam nga ñu rafetal wax ji bañ see xam nga génnee nit ñi seen xel ci làmb te xam ne làmb culture la te xam nga lii lii xew nii am na ñu mu neex ci làmb am na ñu mu neexul ci làmb te ay nitu làmb lañ te gëm naa ne ñu mu neexul ci làmb ñoo ëpp ñu mu neex ci làmb léegi léegi autre chose temps yi certificat médicaux yi bari na de da nga war a bëree ñëw rek dugal certificat médical Balla Gaye gis ñu mu def ko Gris Bordeaux Ama Baldé Modou Lo loolu Ah, day avancé loolam wala day yàq ah, ay blessure la rek sport moom moo blessure ñoo ànd quoi mhm. sportif mhm. moo blessure ñoo ànd sport blessure da koo da koo yàq ñoom mhm. ñaar bokk neex bàyyi parce que si biir salle musculation bi blessure mën na la dal si biir contact bi mën mën nga blessure xam kenn blessé wu ku mën a jël risque ne diw blessé wul wala ndeyu mbil gi rek moo xam parce que billaahi képp kii pare combat di nga am ay blessure di am blessure yu métti. Mhm. moo xam da lay empêcher ba nga mën a bëre. moo xam da lay empêcher nga bëre wala moom. am ma fa sori du ma fa xoolee sportif mhm. naa loolu. Mhm. du ma dama koy bàyyi ak ñeneen ñi sa copain la va bien. mu ngi waajal Siteu bu baax a baax a baax. mu ngi si wàccaay yi xam nga. di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam bu wér. mu ngi si wàccaay bu baax a baax a baax. dëgg mais kontaan nañ ci yow. waaw maa la gën a waaw on a damay nuyu rek mi nga xam ne tey ñooy jàppale ma ca. Mhm. ku si mel ni Jamil Nuuru laa. Jamil Jamil Nuuru laa. Jamil la bu baax bi tabaski baa ngi ñëw jus bu baax bi. Mhm. xam nga di ba di nuyu Fallou Parkin Fallou Parkin xam nga. Mhm. ak gaayam yi xam nga ñoom ñoom ñoom waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare. waaye di bëggee Ibrahima borom Gambie Matar mbay borom États-Unis fii nga ma fekk nii muy Amath Amath doomu nday Diouf yi Faya. doomu nday Abdallah. sama xarit dund yaa Babacar xam nga di siyaare Sora Ala Ndiaye suma xarit Badou xam nga xale xam nga ak grand frère yi ñoom as ñoom bàyyi ñëpp maa leen di siyaare di leen bëggee sama mm-hmm. grand sama lépp muy Masta Ala Ndiaye mm-hmm. mi nga xam ne seetaanu ma maa ngi koy sant bu baax baax mm-hmm. di sant képp ki nga xam ne yaa ngi ñaanal Mathia di sant xam nga ñoom Fall mii toog xam nga di wax ne Dieye kooku aw ma fayam maa ngi koy ñaanal bu baax a baax gudd fan waa télé bi xam nga waa télé waa mécanicien yi mbaar bi maar bi moom gis nga du ma wax sax foofu dama fay croix rouge. Mm-hmm. di bëgg ñoom dund xam nga gars yi xaaf xam nga Youssou Seydina xam nga noon Ndonga Thiam xam nga jibi koo xamante ne benn nit la ci man ku mun a sonn ci man koo xamante ne mënu ma sax wax moom li may wax rek mooy li may wax dund mooy yàlla baax na yàlla ñu yàlla yóbbu rek suturaal ñu jibi sàll. Mm-hmm. maa ngi koy siyaara mooy toog sama cumukaay ay Assane Kalla fan si club bi ñoom Xaadim ñoom Birane xam nga ñoom ñoom Maguette Thiaw mm-hmm. xam nga Ndeye Sylla ñoom Ndeye Fatou Mbaye Ndeye Fatou Mbaye aw masa sa fay yow li ma lay wax la rek yan baa ngi ci yow xam nga boobu ba léegi yaa ngi koy doxal yow ak Maguette Thiaw. Ah, Maguette Thiaw waaw ñoom ñoo koy gérer. xam nga mm-hmm. moom Maguette Thiaw ak suma yaay biye dem. Mm-hmm. mi nga xam ne suma yaay la sama combat yëpp añi moo koy jënd. Mm-hmm. indi ko suma gàlle ñu soog koo indi gunaas defar toog yeeg yooyu noonu. xam nga gars yi di ñu may ay xarak mbel marché bii xam nga. di ket ñoom mer jàbb xam nga tànkodu ñëpp. parce que Mathia dafa bëri nit ñi nga xam ne dañ koy dimbal di ko jàppale diaspora bi tey ku si mel ni Djily Neymar. Djily mm-hmm. Neymar tey làmb ak ah sans làmb maanaam carrière lay topp ci mbër tey Djily mu ngi siy def xam nga ay affaire yu am solo waa diaspora bi ku si mel ni tey Yaya Jammeh borom Espagne. xam nga waaw Yaya Jammeh mbër. Mm-hmm. borom Espagne mu nekk nit ku baax. Mm-hmm. nit koo xamante ne nit ku jar a bàyyi xel la parce que su ma nee nit ku baax rek man xam naa loo tax ma borom France. maa ngi koy ziyaare di ko bëggee bu wér a wér wér wér wér di bëggee waa koñ bi. sama waa koñ Israël Gunaas Feeraay bi xam nga. maire kafe Daaru Salaam xam nga Jéngu xam nga Roubé essence Touré notaire waa notaire kaw waa notaire suuf xam nga amoo siis tabula kii Air Afrique biyaa ji xam nga di siyaar ñëpp di leen wax tey li ma fi wax nii yëpp bu dee lu baax lu borom bi la xam nga bu dee dama juum tamit xam nga maa ngi jégaluwaat ñëpp. mais xam ne lépp bëgg defal bëgg defal waa Kolda mm-hmm. waaw surtout maa sama waa Kolda waa Bantangel mm-hmm. waa Siklo waa Saara Moussa mm-hmm. xam nga ñoom ñëpp maa leen di siyaar bu wér a wér di leen naan seen doom jàppale leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax waa Tamba xam nga waa xam nga gaa yëpp maa leen di bëgg di leen siyaar Ndiassane ndànk xam nga maa ngi siyaar ñëpp di bëggewaat ñëpp waaw jërëjëf ma gars yi lii laa leen andiloon Iba Kane TV tey ñëwoon seet si Mathia yaakaar naa waxtaan bi am na solo lool lool lool ah survolé nañu ak taalibe mais dafa am kenn koo xamante ne nag dafa sori ci man. mooy kan waxal muy Gambien. Gambien Gambien. Mhm. moom xam nga ba ma daanee dafa yëkkati douze. Mhm. pro max yëkkati may ma ko. douze pro max xam nga douze pro max. Mhm. te si entraînement la ñuy ànd di entraîner di entraîner di entraîner rek. mu jékki ne ma macha ma ne ko naam mu ne ma boo daanee dinaa la muy douze pro max. billaay noonu kon kooku Gambien. Hmm. man Macha maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di ñaanal caaro yi bi nga nekk ñëpp. di hmm. ñaanal gars yi fa nekk yépp ruku hmm. di leen bëggee di leen ziyaare bu wér a wér naan la xoolal doxalal. seen boo daane oh, kat kat la lay gaaral de. waaw mun na nekk booy kuy raam di la yóbbu kay bu da doxee moom day da lay sànni xanaa. da lay sànni dëgg la <laughs> mais jërëjëf ma ca kontaan naa bu baax a baax. rendez-vous bi xam naa booy jëlee avance bi nga woo ko comme rek. wala kon Tidiane Faye. waaw incha allah Pape Ndoye. incha allah Koli Faye daal doo si génn. waaw ñett yooyu moom bu ci ñëw moom. Mhm. fii laa koy def reer rek woo gars yi. ñëw ñu koos ñu koos ko naan. mais jërëjëf Madia. waaw sant a baax. nekk de. merci jërëjëf. jërëjëf. ndeysaan ñoo ngi fii lion tey kii laa seet si de sama copain démb ak tey ndeysaan ça c'est Cœur de Lion Cœur de Lion nuyu naa la gis nga laa tañeera ngob de fii la ñuy dugg si tey mais copain nuyu naa la mais copain ziar naa la ah, Sénégal la la ah. tey dañu war a waxtaan de tey moom waxtaan bu waxtaan bu riis lay doon. waaw dañuy ah dañuy sàjji. loo bëgg rek. gaa yi ngi nii de gis nga ñoo ngi fii topp le grand champion. sama gars yi ba salaamaaleykum mbokk internet Iba Kane TV yi tey nag eh, ma seet si sama xarit sama waay ku nekk mu nekk koo xam ne dafa dafa bokk si man si lu si lu bare carrière muy joué lu bare bare bari bari vraiment yàlla def muy dox muy neex bu ñu tuddee ko Cœur de Lion euh, def euh, carrière bu exemplaire carrière bu bu bu kéemaane daal waaw donc tey mu dem ba tekk ngeen moom ba toog tey ma yàgg topp lii nag émission bi genre émission confidence la nag du émission boo xam ne tey dañu ñëw fii di sànnante xeer di wax fii di non non tey dañu bëgg a wax jaar-jaaru kan mooy Balla Diouf fu Balla Diouf jógee fan la cosaanoo nan la nekkee woon Medina nan la nekkee woon euh, xale nan la duggee woon école nan la duggee biir Fass nan la génnee biir Fass làmbam yu ko gën a marqué donc tey émission confidence tey sunu premier numéro tay ñu ko amal ak Balla Diouf Balla Diouf ma bayil la nga nuyo ak wa Sénégal ak mbokk Iba TV Wow, assalamualaikum. alaykum Iba ma ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa way di kontaan trop ci ñew seet si bi ma seet si vraiment compagnonnage bi yag na du tay donc ben anecdote rek di wax ni Sénégal Iba mi tok toog moom moo Cœur de Lion donc euh, ma xey gis ñu titre Cœur de Lion. bu Fass donc mo continuer ba légui jig ma lool di ko ñaanal yàlla mu nekk suma xarit euh, bu yàgg ba léegi tey mun naa wax ni bokk na si ñoo xam ne bokk marqué nañ suma carrière mu koy jaajëfal di nuyu Sénégal ñëpp di ñaan yàlla jàmm am fi ñaan yàlla ñëpp am tawféex am santé am wér am lu lu nekk ci poos yi lu ñu yóbbu kër mm-hmm. ñëpp am tawféex daal am jàmm donc loolu la ñuy ñaan di nuyu mondu làmb mm-hmm. di nuyu sama mbokk mbër yi di nuy sama famille sama yaay sama papa Euh, suma doom samay xarit samay am di jàmm samay nitu démb ak samay nitu tey ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu ñëpp daal d'une manière générale ah, dama dugg xuus si débat kan mooy Balla Diouf waaw Balla Diouf benn benn jeune sénégalais la comme ni ñu koy waxee euh, bu un peu particulier parce que euh, voilà maa ngi juddoo Médina le 20 octobre 1978 yaroo Médina donc sama papa nekk biologiste nekkoon doon liggéey ISRA euh, sama yaay nekkoon femme au foyer donc ñu nekk Médina ñoom ñaar ñëpp donc ñu meññ ma fa. ba ma juddoo Médina donc man nag dama nekkoon benn benn xale bu xawoon euh, bari énergie. xale euh, boo xam ne déjà yàlla mayal na ma fit ba nga xam ne ragalu ma woon dara. lépp lu ma nekkoon rek dama ciy fës. genre weex donc ngay euh, mun naa wax ku bëggoon xeex laa ku bëggoon affaire guerrier affaire góor laa woon. Mhm. ba tax na sama moroomu góor musuma musuma mën a yeb. Mhm. ak nu ma mënti toll dama la mos dama daa dama daa mos fu dara am rek. Mhm. wante fu mu mosoon nekk rek yàlla day doon def. Euh, coow daf dama doon bëri coow daf lu ndaw rek parce que daaw ma woon dama nekkoon trop sur défensive. nekkoon benn enfant bu difficile. déjà mon père et ma mère, ils ont tout fait pour ma dem école. Donc, dans la école, Medina, école Medine, euh, Medina 4. Donc, Django, sorry, je suis Django parce que euh, dama nekkoon nit boo xam ne jàng daal xaw ma lan la woon sama euh, problème laa ci amoon at moom parce que bugguma woon jàng nasaraan euh, première année bi ma jàng daanaka at jànguma année bi yëpp donc teg coono sama sama samay waajur ñu sonn ci trop parce que sama papa ku ko xam-xam ne intellectuel bu mag la tey sama famille ñëpp ay intellectuel lañu euh, sama sœurs yi sama ñoom ñëpp c'est des intellectuels mais man daal maa ci différent woon man daal maa bëggul woon yoonu école yoonu nasaraan bi man maa ci maa ko bëggul woon daal parce que paa bi il a tout fait maire bi il a tout fait mm. yóbbu nañ ma école daw naa ñu yóbbu ma école lu baree bari bari yoon doom ne duma ma dawaat dóor nañ ma yar nañ ma lu nekk def nañ ma ko finalement hmm. ba ñu jaaxle parce que tamit bon boole woon naa ci tamit aussi ba affaire yi demee ba ba pire ba pire dóor yi bari ma may fàq kër gi di di fàq kër gi hmm. à bas âge di di fanaani sumba ju mooy taatu armériel ya. hmm. à bas âge man daal dama mës a nekk nit koo xam ne dama mës a bëgg liberté daal mosuma mosuma bëgg ñu may tënk ci dara nit ku mel noonu laa woon donc à bas âge may di fanaan ci mbedd yi di fanaan ci taatu oto yi hmm. ñu may wër hmm. ah, di ci police yi fu nekk di ma wër ah, boobu maa ngi sama point hmm. nekk am ma mosaa jàpp indi ma ci kër bi donc kërëb kërëb minute qui suivre newaat naa teel parce que man tey lu ma mus a def lu mu garaaw garaaw bu ñu ma ci dóoree wala luñ ma ci mën a def. cinq minutes dix minutes vingt minutes après fàtte woon naa loolu. Hmm. defaat naa lu gën a garaaw. donc j'étais tellement terrible. Hmm. pour te dire donc demoon ba jaaxal sumay sumay waajur jaaxal waa Medina. Hmm. parce que tellement que Medina nu mu meloon bu njëkk. voilà ma nekk xale ak fit bi ma am. ak ñi may fréquenté. donc mu jaaxaloon sunu waa famille. donc euh, ci noonu lañ ma yóbboo woon kooku yi. boo ko jagle sa jéeg donc mooy sama première expérience ci àdduna donc yàlla def na avant may dem ta commencé woon naa tàmm tumuraanke ndax man walaa fàq maanaam donc fu nekk laa doon dem pompier fu nekk laa doon dugg man kese bu ma demee kooki tamit bon metti woon na trop ndax foofu vraiment éducation ak jàng moo fa am waaw mu metti woon trop ma ñëw dem ba benn moment pour nga dund foog nga def li taalibe yi di def mooy déjà ba mu ko kooku gis talibé yi donc man dama man dama je me sentais différent à talibé yi. Hmm. déjà euh, musu mo xalaat né sama aduna dina dox ba ba yor pot de yalwaan dina dox ba yi li talibé yi di dund doon talibé deugantan hmm. à ba âge à l'âge de 7 8 ans. Hmm. donc euh, voilà dundu ko fofu jang di jang di yalwaan donc. dundu dund taalibe daal tumuranke gisoo yaay gisoo papa di dundu la loi du plus fort donc sama caractère nak Euh, ci situation yu mel noonu laa ko la la forger woo parce que mënoo woon nekk xale di yalwaan yi mu lay koj ci àll bi di la dóor di nangu li nga yalwaan donc ci yooyu noonu donc ci nga forger benn caractère ba kenn mënatul la ci yëpp ba kokki tey mun naa wax ne ba jusqu'à présent boo demee sama empreinte mi ngi fa parce que nekkoon naa euh, ci daara joo xam ne plus de 5000 taalibe moo fa nekkoon mais presque daara ji ñëpp ma xamoon mm. parce que voilà mi ngi noonu daara ji yëpp ma yëpp xamoon parce bêtises yu ma doon def en même temps ak xeex yi doon am ci daara ji dama ci daa fës lool donc maa ngi fa dem jamono juste bi sëñ Saxiir Lo làkkoo sëñ Matar Lo di ñëw donc ak rakam Fallou Lo donc Ibra Diagne moo ma jàngal ko ci ak taala 2 donc mbër bu ma fa jógee tamit dama dem ba jàng mais dama daw ba ma wàccee ba ma dama tari benn yoon wàcc benn yoon ci laa njëkk daw ñu jàppee ma kebe Kébémer mm. indiwaat ma ci daara ji ba ma ba ma wàccee nag ba tariwaat ñaar yoon euh, bu njëkk bi Fallou Lo moo ma téyel mm. deuxième bi Matar Lo moo ma téyel bu ma wàccee nag war a dem jàngi arab ci laa daw ci laa daw nag ci laa ñëw ndakaaru mm. donc bu ma ñëwee Dakar aussi pompier laa wàcc mm. parce que parce que loolu tamit parcours la parce que ba may laa jugee kokki euh, difficilement laa du jugee kokki jugee kokki dox ba Louga déjà ci biir àll bi ak tànku neen doon xale di fanaan ci ay garab bu guddi jotee ba ñëw Louga lu Louga am fa ben yaay daara ku yoron ben restaurant ci bir garage lu bi donc mom fa la doon nek bu ma xey yalwaani bu gude ma ñew fofu bu wacce tëj ma ci bir dem bu xëyee suba tay bu ñewé ubi man ma genn dem yalwaani donc non la doon def ci dajale ba am pass euh bu ben jour ma yalwaani ci marché Louga bi dajeeg sama ben mam koy wax sama mam Sidi Mbaye fofu moo ma indi wat ba ba keur ga donc ba mu ba ma yalwaane ma dajeeg mom mu ne ma ci du bàll ma ne ko wa mu ne ko jëlé mu ne ma ne ko ak surtout at ni mu ma gisee ni ma mel. affaire bi tooy xolam mu def tout ba parce que kooku da doon am ay wattukat boo dawoon dañu laa topp garage bi dafa amoon ay genre renseignements yoo xam ne daara taalibe bu jóge kooku bu ñëwee ci daal ci garage bu fasee rek dañ koy delloo. Mm. donc mu fexe ba ut ay yoon ut pexe ut ay pexe ba dugal ma ci oto ba indi ma Dakar donc ba ma ñëwee nag bon ñëw Dakar xawoon feebar am amoon feebaru xolam parce que jumbo yi ñu doon yónnee ñu koy tabas di ko def ci. ci lekk bi ñuy lekk. donc dama ci ëpp loolu ba ma ñëwee nag at changement de rythme ak environnement bi dafa ma feebar. Mm. ma feebaroon nag xoromoon ba néew ba waa kër ga yëpp jaaxle woon ba ma wéree nag commencé waat di génn ci quartier bi boobu nu ma woon quartier bi carrément parce que ba may dem xale laa. Mm. ba ma ñëwee commencé naa xàmmee. Mm. donc ba ma ñëwee nag amoon ay mouvement ay matinée ay fuural nawetaan. doon am ci quartier bi di yëngal di xumbal quartier bi te voilà man nag ma dugg ci dugg ci nawetaan ci côté supporter parce que dama mos a bëgg ASC Kusum mm-hmm. donc nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci donc voilà si oligansi Kusum yi kenn du laal Kusum bi ñu doon dem nawetaan vraiment bu ñu ñibbee xeex yi entre quartier quartier mm-hmm. donc tamit ma fësoon ci trop demaat nag ba intégré waat nag ci rythme waa Médina bi. donc nek ci euh, côté supporter ASC Koussoum mm-hmm. ASC Koussoum léegi. di ci activé wu dem ba nek président supporter yi. Mm-hmm. donc ba ba nekkee président supporter yi tamit lepp ci ci fulla ak fayda. euh ci ku jàngul école bokk ci association bo xamné ay cadre impo ñoo fa nekkoon doon ay président nga dem ba nek yor fa yor fa poste de responsabilité mooy mm-hmm. wane toujours man sama détermination ci lu ma mën nek parce que fësoon na ci supporter yi xétu fës bo xamné du sama alal du sama temps du sama doole du fenn fu ñuy troxalee wala di ñaawal ñakalé fayda équipe bi. Hmm. ma dem tok di seetaan dama da ñëw toujours répondre au présent et fexé ba euh, zone 1 ñëpp respecté kusum. Hmm. donc voilà donc loolu tamit joué na ci ci côté supporter yi aussi. Hmm. amna changement yu bari ma fa indi moy déjà dindi asiko ci ASC dindi dindi sabar parce que jigen ñi ñoo doon supporter ASC bi bu ñëk ba mu ñëwee la changer changé kusum ñëw dindi jigen ñi parce que jigen ñi dañ da dem stade ñu leen di door di nangu seen i yëf. Mm-hmm. parce que boobu yeneen ay xandaalu damees ñaay cokkeer ñooñu ay góor ñoo leen doon supporté. ma fexe ba indi changement boobu defar ay asiko fexe ba man sama propre moyen samay xaalis ak samay am di jàmm génnee xaalis di dem defar ay asiko ma jël jeune quartier bi ñu si bëri jàngal leen lan naka naka la ñuy tëggee asiko amoon benn tëggkatu jëmbe bu mag bu nekkoon ci quartier bi ñu koy wax Bunumaar. ma dem jëli ko intégré ko ci group bi kooku moo defar groupe bi jàngal ñëpp a tëgg ba tey kusum asiko yooyu moom la ñuy tëggee ba léegi asiko yooyu mooy supporter jaraaf même groupe boobu ñooy supporter équipe nationale fu muy dem tey yàlla def ci nawetaan laa jógee dugg ci làmb mais avant avant ngay dugg ci nawetaan bi si làmb da ne fàq maawaan nga woon hmm. bi nekk fi Dakar euh, yëpp difficulté la fàq maa di raconté parce que léegi jamono ji département day quinze département day def lu bon loolu yow peut jaar na si. waaw donc risques yi ci nekk bëri na parce que tentation yi. Mm-hmm. Euh, ak ndakaaru nu mu meloon bu njëkk. Mm-hmm. donc euh, ndakaaru bu njëkk surpeuplé wul woon nii. am nooyi woon na parce que ñun suñu génération. donc dëkk bi melugul woo yàqul woon ni yàqu bi parce que ba léegi ay valeurs yi ngi desoon parce que am na ay mag. Mm-hmm. yi fi desoon ñoo xam ne tey buñ dëkkee sa quartier rek buñ la gisee fenn. tak dañ lay jàpp. am nañu sañ-sañu dóor la am nañu sañ-sañu delloo la seen kër. parce que léegi léegi yooyu léegi dafa xaw a. dafa xaw a manqué. donc tenta tentation yi ci nekk mooy tey. de tentation yoo xam ne tey di nga am ay mauvaise fréquentation des mauvaises rencontres. ñoo xam ne tey dinañ la dugal ci lu nekk. Euh, tentation yoo xam ne tamit tey ay mag yoo xam ne dañ doon jël ay xale. Ah, di am fu ñuy nekk ñoom di leen di tëddee. yooyu noonu yëpp da nga ko daa gis nga teel ci am expérience. teel ci am expérience di fréquenté ponti guddi gi bu ponti ponti lañ daa yalwaanee guddi gi bu ñu fanaanee pompier yeewu dem ponti noonu ngay def ba xam ay nit yoo xam ne nga dem ba commencé fréquenté Maro Émile te Maro Émile bu njëkk ku ko xam tey ku xam ndakaaru xam Maro Émile xam li fa amoon xam li fa nekkoon bu ñu la nee diw daana fréquenté sax doo ko ñemee parce que telement que nit yu ko doon fréquenté dem ba intégré foofu dem ba nekk chef bi foofu dem ba lépp li nga xam ne mooy ci biir Ndakaaru Sandaga Flixifort mm. ba ci Valmy ba ci Mbot tey lépp lu fa nekk ñu am bi ay kuréel yoo xam ne tey tey lépp luy am ci dëkk bi ñun dañ jàppoon ne dañ ci war a am mm-hmm. di def naka sudul noonu mm-hmm. di def lu lu doy waar di mm-hmm. fréquenté ay chaise gorée te ay chaise gorée nekk xale ay noflaay donc nekk xale yu terrible yoo xam ne amuñu woon limite ci lu ñu bëgg donc voilà ba pare gens ko sàcc lépp li nga xam ne tey góor war na ko def ci expérience ci jeunesse mhm. yàlla dimbali na man def naa ko mhm. tey moo ma permettre tey ba ma toogee mhm. xam lu bëri nit mënuma dugal ci lu mu xamul nit mënumaa nax nit musu mënumaa fexe fexe fexe ba intégré ma ci loo xam ne man vraiment parce que voilà parce que lu bari tey li bari lu ñu ñi di def. ñun def nañ ko sur suñu jeunesse. Mm-hmm. teel ko bàyyi ba pare dugg ci sport sport yar ñu. Mm-hmm. forger ci ñun yeneen caractère ak yeneen valeur. Mm-hmm. at ñi nga xam ne tey euh, mooy suñuy responsabilité fu ñu toll ci àdduna dem ba doon responsable am doom. Euh, am jabar am doom. tey am envie di teral say waajur. am envie bëgg a war a image bu baax. te tey tey sant yàlla bu baax a baax parce que loolu yëpp. permettre na tey ñu am euh, une expérience dans la vie. ba mun a mun a nekk ci dëgg bi mun a nekk ci jàmm mun a koo xam sax xiir ko ci lu baax. Euh. Ah, donc voilà mi ngi noonu. mais mais période bu difficile boobu euh, ku wax période boobu wax peut-être def nga kasoo wala mus nañ la ramasse qu'est-ce qu'il y a. waaw def naa kaso. Hmm. donc loolu moom xam naa ne ñu ko xam bëriwul. Hmm. def naa kaso ñaari yoon. ñaari yoon waaw def naa kaso ñaari yoon hmm. correctionnel. te voilà. sama man nag li ma dugal kaso yàlla def na ni. ñaar yoon mu dugg kaso yëpp musul nekk samay problème mhm. donc man comme ni ma la wax rek ay problème jambour toujours ci lay am problème mhm. donc wala sama nit wala sama xarit bu may andal am problème ma dugg ci problème bi ma am problème mhm. problème sama li ma ñëk duggal kasso moy tay tey dama dañ demoon Bali euh, dañ demone Bali euh, Molde Molde Molde mooy BPS euh, moy ancien studio 2000 waaw DJ Matar moko nekkon doon def ay rawatina dem si yàlla si yàlla ko yàlla xare àjjana donc payason am jóge fa bañ jógee baali di dox di ñibbisi parce que ñun bu njëkk bu ñu dem Moussa dem bi ay Lamine Gueye wala Happy Pierre Choc fenn dem baali bu ñuy ñibbisi dañuy dox donc ba ñuy dox di ñëw suma gars yi am ñu desoon bantaya ñun maag sama benn copain rek ñu ànd di dox di wàcc Sandaga bi di ñibbisi jël avenue Blaise Diagne bi donc bu ñu ba autoroute service d'hygiène autoroute noflaay bi ñu gis ñaar ñuy xeex kenn ku jigéen ak kenn ku góor donc ku góor ki ba ñu ba ma ba may ba may tollu ci descente bi di ñëw maa ngi gis ku góor ki di fojete gel bi ba mu ko fojetee nag ñaari tànk yi ak ni gel bi daanoo ak man fi ma déparé ñëw xalaatuma donc ñu yuuxu gis ci suuf donc ñu man ma ñëw ñëw automatiquement rek dal ci bi sama beneen copain bi dem ci yëkkati femme bi téye ko mm. ba ma dalee ci waa ji nag ñu xeex ci laa jaww jël birig dóor ko waa ji daanu nekk mm. daal mm. donc ñun tamit ñu and ak gel bi gaay ñu ñu jël ko yobbu ko ñu and ak gel bi ba malik ci ñu bayiko mu dem donc à ma grande surprise deux jours après ñu indil ma convocation femme bi ci bopam at waji donc waji japp ne bi dama ko ne dama ko doon agresser donc gelam la andal di dem agresser ko en plus femme bi témoin comme fabeuru copain bi donc lolu moo ma njëkk yóbbu kaso mm-hmm. ma dem ñu tapel ma correctionnel ma def six mois ñu bayima grâce bayima mm-hmm. donc deuxième bi aussi pare yi ay xeexu nawetaan la woon donc kusum la woon donc euh, mooy ci problème asiko yi donc euh, ba ma demee ñun gars yi police ñëw ñu ramasse ñu donc ma jéngoonte policiers yi at bagage yi fekk suma gars yëpp dem ci la ñu ma yóbbuwaat kaso donc voilà mu ngi noonu ñaari kaso yooyu laa def donc euh, beneen bi bon du kaso violon la mm. police Médina lañu yem après ñu arrangé ko beneen bi mooy ba ba Gris Bordeaux bëree at Gris euh, euh, Gris Bordeaux bëree at Yékini donc problème bi ma ci amoon noonu ba dem ci kaso mm. donc sinon à part euh, yooyu mosuma dem kaso ci ay cas yoo xam ne mm. cas yu graaw a waaw comment était Rebeuss jamono jooju waaw Rebeuss c'était très difficile maa ngi woon chambre neuf après moom yitewu dem dix mhm. parce que suma neuf laa nekkoon amoon na suma quelques copains mais suma lu ëppoon ci sama xarit yi ma doon àndal mhm. période boobu ñu ngi woon dix ci laa yitewu dem dix mhm. dem ba nekk chef de chambre dix ci l'espace bu ndaw donc parce que bagarre bu amoon ci biir bagaar rangé ak chef de chambre beeg yenn gars yi problème bu dàmbaloo mhm. ci laa ko escanté woon donc voilà mhm. ba pare nag yëngal yëngal chambre ba pare revendiqué nekk chef de chambre nekk chef de chambre mhm. dix nekk naa fa du mel ne deux mois avant may génn donc voilà ay nit yu baax man ci kaso laa xamee ni Euh, ay nit yu baax ñooy dugg kaso. Mm-hmm. bëri na ay innocent yi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso bi parce que ñu bëri ñooy waxal souvent seen cas euh, problème yi du ñoom yeneen ñeneen la. Mm-hmm. wala problème yoo xam dañ leen sàkketoo am ñoo xam ne defuñu dara dañoo juum ñëw jaawale rek ñeneen ñëw tëj leen am na ñoo xam ne ñi ñu waroon tëj tëjuñu leen mais ñoom ñooy maillon faible yi ñu tëj leen donc kaso nit yu baax fa nekk da ngay gis nit yoo xam ne. jaamu yàlla rek lañ fa nekkee. nit yoo xam ne entraîné rek lañ fa nekkee am ambition génn pour changer. ay nit yoo xam ne nag am na moom àdduna boo gis am na ñoo xam ne ci liñ nekk rek la ñuy dee. Mm. duñ ci duñ ci yeewu. Mm. am na ñoo xam ne toujours dañuy naan bu ñu génnee dinaa defaat lii. Mm. après bu ñu génnee ak ni ni jamono di doxee. parce que période boo toog boo génnee dëkk bi day changer day avancer. ci la ñuy dem di évoluer mais kaso nekk na koo xam ne. vraiment góor yàlla dëgg fay jaar. parce que heure boo fa génnee rek am na lu muy def ci yow lu positif ak lu négatif donc man nag ci côté yi positif la def ci man parce que ba ma ba ma génnee kaso toujours dama naan du ma fi duggaat mm-hmm. ak xool lépp li nga xam ne moom la yóbbu kaso ma commencé ko éviter mm-hmm. parce loolu nag moo tax ma commencé di éviter ba dugg ci sport mm-hmm. parce que ba ma duggee kaso six mois yi ma fa def waroon tëdd des am am lijjanti at am mbokk dëgg moo tax grace ma bokk ci grace présidentielle bu mais mais nan la won sen nek ni ci biir kasso bi ni dañuy wax paquetage des chambre. parce que parce que parce que période paquetage paquetage parce que chambre dafa dafa mm-hmm. ay chambre yu yu personnes wala vingt personnes wara nek ay 100 personnes nek euh, mm-hmm. donc bi day am toujours day toujours c'est la loi du plus fort ni mm-hmm. fort ni fort. ñu faible di faible te bu kasso bo boo bo nekkon nga ka ni wala nga nekk kuy tiit wala kuy ragal bo musa dugg rek dañ na leen wax sangu jël bo démé sangu jël summi sa yéré wékk ko bo ñëwee do fekk sa yéré parce que ni la yalla juré ngay génné hmm. après bo amul sutura dëgg mëna lijeenti wala am fit am dayo go xamné war nga mëna lijeenti sa bop xex sa liberté ci biir chambre bi hmm. kon ci maillon faible yi ngay bok sa añ bu ñëwé dang koy joxé lépp dañ la koy dicté hmm. amna nu sax waaw yalla yalla euh, bëgguma ci wax ñu ñu ñu ñu lay def naka sudul noonu. Hmm. di la tëddee ci biir rek ay yenn détails. yooyu yëpp yooyu yëpp am na ci parce que foo pet ay góor ay at. Hmm. ah gis gisuñu xeetu jigéen gisuñu dara hmm. souvent yooyu dafay am. donc te chambre boo dugg yooyu am na fa. mais ne ñi nga xam ne jàmbaar lañ ñi nga xam ne tey dañoo xeex seen liberté. ba am ko ñooñu ñëpp dañ leen di ràññee ci biir kaso bi dañuy xam ne ñii ñooy yi. ñii ñooy defeera yi donc voilà sant nañ yàlla ba fu ñu mës a bokk rek. fu ñu mës a dugg rek ci vainqueurs yi lañ bokk

si di ko sant du ma jóg si di ko sant du ma jóg si di ko sant ndax période yooyu c'est j'étais naa enfant rejeté kenn bëgguma woon xam kenn bëgguma woon mbokkoo ñëpp bàyyi ma ak àdduna moom rek laa dese woon moom rek laa gis moom rek moo doon jaay ay oram di jël ay euh, avocat euh, moom li may wax xam na ko man xam naa ko samay mbokk xam nañ ko sunu waa kër Medina waa quartier Medina xam nañ li may wax dem na ba ñëpp bàyyi ma ak moom parce que ñëpp bërgaloon nañ ma ne leen kii dootul baax tey nu ma mel suma yaay la lu ma doon tey moom la parce que su ma seetaanoon ci période yooyu xëy na ca la ma nekkoon dinaa ca lan musul bàyyi musul sonn musul xàddi musul taay ci sama mbir fu ma mës a nekk fu ma mës a nekk am jafe-jafe fekk na ma fu mu musa nek am jafe-jafe ñepp sétan ma fekk na mo mu bolé lu ko neex ak lu ko neexul heure bu mu musa génne si jafe-jafe ñew ci kër gi dama da gis mu da wété di coono yoyu mako da tek teg ak naqar yooyu di ko ko jéggalu bu baax jéggalu yu amul ab ndax mom rek mo desewoon ak man ci bu muy metti té ba mu neexee ñepp ñew nañ te uuf na ñepp sante yalla bu baaxa baaxa baax ndax bu seetaanoon mu ñaaw te musul seetaan di sant suma yaay bu baax. mais jamono waaw jamono jooju bon xam nga suma papa donc nit la koo xam ne wax dëgg yàlla ku ma mos a jox cër la. Mhm. parce que valeur yu bari yoo xam ne tey yu bari tey dama ko roy ci moom ci am jom ci bañ a tooñ ci bañ a ñaan ci bañ lekk kër jàmbur yooyu yëpp dama ko dama ko jël ci moom mu nekk ni koo xam ne liggéey la mos a xam at jàng. Mhm. tey boo xoolee suma famille ñëpp da leen yar ci jàng. comme man ma ci différent won mo hmm. taxone mak mom c'était pas facile du tout parce que mënu ma won comprendre ñepp di jàng école nek ci kër gi normal man ma normal di dem di nek di fàqmaan muy dégg doom ci fàqmaan ak yéré ak yeneen hmm. c'était pas facile hmm. un moment donné dafa sonn euh, vraiment baye ma suma yaay wax deug yalla bu baye ma gayna loo xamné wax deug yalla ah bu du woon du baax tes frères waaw yàlla daf ma dimbali sama côté papa ak sama côté yaay ñi ma bokkal euh, dañu mës a am affinité dañu mës a nekk benn famille te loolu moo continué ba léegi même temps yi may différent hmm. nekk un enfant rejeté euh, bu ma demee suma kër papa wala ma ñëw suma sama kër yaay man damay gis amour bi sama sœur yi ak sama yi di am ci man ba loolu moo porté sumay carrière ñoom laa njëkk a nekkal dans les premiers premiers samay frère ak sœur hmm. ñoom dañ ma mës gëm dañ ma mës a respecté ndax tey bañ nekkee xale fu ñu mës a am problème man lañ daa woo sama famille fu ñu mës a am problème rek ku ñu mës a dóor ci kër gi wala nga mës nga dem ñu koj la wala def la dara rek man man man lañ daa woo ndax aw ma ci woon sago ci sama famille donc xëy na j'étais trop différent hmm. mais y avait y avait

Euh, gis coono yu ñu teg pour ma am avocat pour ñu mën ma bàyyi gis sama yaay may ñëw ñu ma bi lekkul dafa feebar su ma amee problème maire bi gëj na am jàmm dama laa toog suma xel bu nekkee ci loolu ak ba ma yëgee ni lépp lu mu am jaay na ko pour ñu bàyyi ma lépp lu mu foog fu ñu ko nekk sëriñ a ngi fa maire bi sëriñ lu nekk maa man lu nekk lekk na xaalisam mm. fu nekk yóbbu na ma fa fu mu xalaat maire bi talatul woon njaboot talatul woon kenn hmm. fu mu dégg ne am na ku mën ñaan yóbbu na ma fa pour man ñaan parce que demoon naa ba jaaxal ñëpp Médina quartier bi ñëpp laa jaaxal parce que mi ngi noonu daal man sax dama jaaxle woon sama bopp parce que aw ma woon limite ci dara li ma bëgg dama koy def mais sama yaay takk na ndigam dox ay jéego dugg fu nekk ba tey xëy na coono yooyu la yàlla xool ba teg loxo ci man ba gindi ma ci li ma nekkoon teg ma ci beneen yoon yoon boobu moo ma indi ba tey fii ma nekk di sant suma yaay bu baax di sant sama njabootu yaay di sant samay nijaay samay tànt suma waa kër Médina daal bàyyiwuma kenn parce que li ma Médina defal ak suma waa kër awma seen fay Médina ñëpp nag laay gërëm particulièrement sama famille euh, suma yaay mention spéciale mm. ba tey su ma toogee Sénégal bëgguma tukki mm. bëgguma dem fenn parce que bañ koo sori ndax bëgg di ko gis mm. bëgg di dox ci soxlaam bëgg du namm dara lépp li nga xam ne tey doom war na ko mën a defal yaayam ma defal ko ko xëy na nag lépp ma tewul xëy na un moment donné suma carrière lépp waroon na neex un moment donné la situation de la vie fait ñu nekk ci ay situation yoo xam ne tey lépp li nga xam ne tey amoon nañu ambition pour defal ko suñu waajur euh, lu bari mat na mais am na yu des te incha allah euh, bu ñu yàlla suturaale ñu mën nekk di liggéey di dóor yàlla mën nañu suturaal ba lépp li nga xam bëgg nañ ko yéene nañ ko suñu waajur yàlla defal ñu ko. donc euh, les gars dégg ngeen première partie boobu ak Balla jaar-jaaram mu nekk jaar-jaaru góor dëgg nag waaw jaar-jaaru góor moo fa mën a jaar. nga nekk xale bu ndaw vivre vivre affaire bi toll nii te yàlla génn la tey nga toog nii nekk nit koo xam ne dañ ko ràññee ci Sénégal loolu c'était pas évident ñu siy gërëm yaayam bu baax parce que tey bu toogee nii comme ni mu ko waxee yaay ji donc maman fi nga toog mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wër mu ngi la koy ñaanal bu baax Balla Diouf li mu mébét si yow yàlla na ko yàlla def mu mottali moo ko sunu papa jooju bëggoon nga baax moo tax peut-être mu amoon

moment yu pénible yu mu si jaar moment de bonheur yu mu si jaar si deuxième partie bi yooyu yëpp nañ ci eh, dugg xoos bu baax ba bu nu muy bàyyi làmb am na ay jaar-jaar yoo xam ne tamit dem na fi ba Gabon takk na fi tubaab yooyu yëpp dinañ si jaar tey ñu ànd Confiance premier numéro bi ak euh, Balla Diouf euh, ñu ngi leen di joxaat daje dans une minute si beneen waxtaan mbokk internet yi ngeen baal ñu ñoo ngi ci deuxième partie bi nga xam ne Confiance jaar-jaar ak euh, Balla Diouf mu wax ñu jaar jaaram Balla nga génn fi nga jaar yëpp après nga dugg si làmb Balla yow mi doon nekk président des supporters bëgg football kenn xamewu la làmb nga jékki-jékki rek dugg si làmb Balla loolu lan nan la demee noonu. waaw bon euh, peut-être ci premier partie bi am na lu ñu tëb lu bëri. mooy lan parce que tey avant carrière bi. waaw football bi moo jiitu. parce football que football naa. Mhm. football naa nawetaan. voilà football naa nawetaan mais période boobu période bi may bëri mbapat taay may commencé nag ci mbapat dëggantaan. di daaloon bëri mbapat di football en même temps. donc euh, voilà donc euh, mi ngi noonu euh, carrière nag xëy na. mbapat bi fan nga jaar. naa fu bëri. jaar naa mbapatu Pikine mbapatu Parcelles. Hmm. mbapatu Medina Zallo mbapat bi mu doon organisé mbapatu Pa Youssou Diène mbapatu Grand Dakar. Hmm. Père Bambara. Ah. Euh, Boy Bambara mbapatu Cheikh Mbap ba Rëbës mm-hmm. Liquide aussi mbapatu Faas mbapatu mm-hmm. euh, Bargny mm-hmm. Bargny nag ci lañ gën a fa lañ fa lañ gën a fës voilà mi ngi noonu ñun bon suñu carrière dafa tombé période boo xam ne par mun naa wax ni ñun ñooy dernière génération bu fekkee mbapat avant mbapat di disparaître comme ça léegi mbapat mbapat yi nga xam ne mooy mbapatu cosaan yi mooy yu séeréer yi def hmm. yooyu léegi yooyu moom la booy di mbapatee te hmm. mbapat yooyu da nga daa bëri ñu lay fay mais mbapat ñun dañ daa dem mbapat di xool gi fi gën a të wala dem pour téye mbapat hmm. wala dem quartier quartier pour téye ko parce que loolu moo doon suñu honneur dañ daa bëri ba fajar xëy dugg suñu kër di fëgg waañ yi di ut lu ñu lekk parce que tellement que mi ngi noonu demeewul woon noonu mbapat nag ñu ci fu nekk loolu am chance nag bëri mbapat fu nekk. Hmm. loolu moo waral tey ñu doon teel a ñor parce que boo xoolee mbër yu njëkk yi daa ñëw ci làmb ñu ci bëri dañ daa ñor avant ñuy ñëw ci làmb parce que làmb bindoo woon na noo xam ne. Hmm. tey mbër pour nga bëree woon grand combat fa lay ka nga confirmé. Hmm. fa lekk nga bëree quatrième combat wala nga bëree troisième. wala nga bëree deuxième combat waat ko ba am spécial. boo bëree combat spécial nag ñëpp xam nañ kii bu paree ci spécial bi. grand combat lay am. kon bu baax. bu baax a baax a baax a baax. ñan nga bëri na bëri na. Mhm. Dolph bëri nañ mbapat. Euh, Moussa Dioum jëm si yàlla si bëri nañ mbapat. Mhm. ba mu daanee gri mbapat ba pare bëri nañu. Mhm. Euh, bëri naag euh, Neka. bëri naag Baaji. ñoom Malick Maitrise. ñoo ñëpp daje nañu mbapat ma daan leen. Maitrise ba ma koy daan mbapat maa ngi ko daan 72 heures bu Fass Mbaaw. ci kanamu mbéy donc Neka. bëri nañ ba pat parcelle 19 ma daan ko. Mm-hmm. donc euh, bëri naa daal ci sama carrière ñu ma fekk ndool mbapat ñoom ñoom xaadim euh, gajaga mm-hmm. ñeneen ak ñeneen yaaram géy mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yàgg nañ daje mbapat wala ñuy daje ci ay mbapat donc mu ngi noonu maak ousa nag ñoo daa ànd lu ci ëpp di dem ay mbapat waaw mi ngi noonu man ousa tafaagay de jili mbëxëri meng de trucs comme ça donc bëri nañ mbapat nag ba yàlla dimbali ñu ñu ñëw ci làmb ba ñuy ñëw ci làmb nag fekk nañu ñor xaw ma ci bëri waaw man sama tur daf ma jiitu ci lépp man ba may nekk xale siiw naa Médina ñëpp xam ma Médina Rëbës ville ñëpp xam ma ndax nawetaan yi boo gisee ba may dugg ci làmb sax asiko laa àndal ñëw ci làmb donc sama combat premier combat yaa nga waaw sama premier combat euh, Ibamar. Hmm. premier combat ci làmb. waaw waaw maag Baboy Diouf maa ngi koy fàttaliku. ay sat Ibamar. Hmm. waaw maa ngi koy fàttaliku gars yi hmm. asiko yi ñëw. sama combat ak Pape Sène asiko yi ñëw. asiko yi rek laa daa àndal. parce que comme maak ñoom ñoo amoon lien. loolu nag ma indaale woon ko ci làmb. vraiment mu nekk sentiment de fierté. bu baax yàlla dimbali ma tamit ma ma def benn parcours ci banlieue Dakar waa tey suma papa après un moment donné jóge na Pikine dem jóge na Médina dem dëkk Pikine hmm. un moment donné ma dem dëkk Pikine màggee fa dëkk naa Pikine Icotaf Icotaf dëkk naa Pikine Icotaf hmm. donc euh, après cité deux noonu donc euh, Euh, kenkaari Youssef donc kër Youssef que ñoom tey euh, ku que voilà ku xam que da ngay dépassé que ñoom Tyson Junior mm. dépassé que ñoom euh, Jacob ah Jacob bi doon def ndem si yàlla animateur rakam di sama xarit yu rëy ñoom Calan ñoom Mbay Waane des trucs comme ça Siak voilà ñu ngi noonu mm. donc ñooñu laa màggandoo fubal naa naataange kade naataange Siak moo nekkoon sama entraîneur mm. donc maa ngi dëkkoon booru que ñoom bacili bacili ñoo jakar la won kër ñom ñom ñom ñoo ma yar presque ñom vie bàccili ak ñoo ñu ña dess mm-hmm. donc ma yag fréquenté syndicat jumsu ba dem mm-hmm. buru ak yoy yëpp mm-hmm. xam ko ah ya, dëkk aussi ya, tourna tournage sa marché hmm. bu bobu tamit ma ngi loolu ma ngi won e ci sama parcours jeunesse. Hmm. dëkk na Caaroy Biafra. Hmm. Ya, don génn e Biafra dox jël yoonu matt yi ba guyga dem duggu jamagan gën. dëkk jamagan jàmm gën quartier Abdou ndjay parce que taayoo dañuy def yi ay tooxi doona daw dem làkkatu di fële. dëkk na ñetti mbar donc loolu yëpp at samay soldaaru mbedd nga woon soldaaru mbedd la won comme nu ma la ko ñetti dem dëkk Voilà, mi non, noonu caara yi bon zone banlieue bi daal miin naa ko miin goo xam ne miinewu ko sax miin bi ma dëkk mhm. tey falaa ëppoon xarit tey boo xoolee ñoom maam góor mhm. ñoom yurey rakku Jacob yooyu ñoo mag màggandoo Pikine ñoom Amath Samba mhm. euh, ñoom Pape Sanew famille ngéwal gi Tyson bi muy dëkk en face ngéwal boobu maa ngi doon fréquenté kër ngéwal nekk booy bu ndaw donc voilà kon maison bu baax bu baax a baax a baax a baax yëpp Tyson bëkkandi ngeen bu ba taay yëpp baa booy bëkkandi ba taay def naa la Euh, naataange at kii ba Tyson at Baboy di dajee sa Tyson bokk jëf ah. Tyson di sal salopet bi di yor coupe nii ah. ñi ngi topp si ginnaawam nekk ci ful bi nekk xale di daw donc voilà mi ngi noonu yooyu yëpp ay expérience la yoo xam ne moo tax mhm. sama début carrière ba léegi mhm. ma jaaxaloo leen parce que boo waxee ñu ne Fass benn der la am mhm. mooy Balla Diouf parce que banlieue bi yàgg nañ ma ko taggee parce que ñu ci bari dama xam seeni mag wala ma fréquenté milliers yi ñu daa fréquenté wala xam mentalité Euh, baale bi ku ci nekk nooy xalaatee nooy fonctionner moo taxoon ma je m'adaptais à à tous les tous les sortes de lutteurs mm-hmm. moo tax sa carrière yomb daal moo tax suma carrière waaw benn moment waaw mm-hmm. parce que bon boobu dem naa ci àdduna loo ba loo xam ne dund naa loo xam ne mm-hmm. moo gën a metti làmb parce que voilà man nag da nga daa xeexal groupe ku daa xeexal groupe di leen maîtriser. benn nit pour man mënu woon jaaxal. Mm-hmm. moo tax bu ma musaa jàkkaarloo ni damay may ni gaynde. Mm-hmm. parce que dama man mënu maa mënu maa maîtriser groupe. Mm-hmm. benn nit di ma jaaxal esprit boobu. dafa dama mus a nekk bu ma nekkoon ci géew mooy nekk sama bopp. mu gis la rek tuddee le cœur de lion. waaw man loolu laa la bëgg laaj parce que ñu bëri dañ may laaj. kër de lion bi fu mu jógee. cœur de lion fu mu jógee. chaque jour. ma taay di wax ni Iba kan hmm. momu ma keur de Lion Iba tay dama lay poser ben question ah. journaliste kenn du poser question mais voilà mais dama bëgg nga wax ma lan motax tax ah. nga tuddee ma keur de Lion sa bravo mhm. wax wax ko sénég wax ko sénégalais dama gisoon bravo bu doy war fi yow nga koy dégager mhm. li gaynde di dégager giir giir nga koy dégager mhm. kon lolu motax sama tour bi du hasard du hasard du hasard te wuyu na ma bu baax a baax a baax jig na ma uh-huh. vraiment ba léegi foo dem ñu naan la kër de Lion uh-huh. donc ñu bëri sax xamuñu sama tur dëggantaan uh-huh. te ba may ñëw ci làmb changé wu ma tur Balla Diouf laa tudd moom lañ ma ngénte moom lañ li xam fii nodd fii li xam ko fii donc ba ñëw kër de Lion bi yaa ko ci teg ba léegi nii mi ngi law kon tamit mooy wane ni euh, coïncidence amul donc juumoo daal nga jóge foofu ndem si yàlla Moussa kër de Lion nga gën ko confirmer mhm. ngeen bëri mbapat ngeen war a ñu Iba Mar leeral ko foofu mhm. nga toll mu toll la foo xam ne mhm. daanu rek a des ñu wëlbati jël boobu nan la demee kër de Lion foofu nag la kër de bi gën a fas yéene waaw période yooyu nag moom mun naa wax ni période boobu bokk na ci période bu gën a neex ci suma carrière période faste période période faste c'est ta carrière mooy sama carrière uh-huh. boobu parce que boo xoolee euh, ci benn année uh-huh. amul mbër bu ko mose def ci période boobu. période boobu ci sama génération. amul dugg parcelle daan fa Dolf. Uh-huh. daan Zos. Uh-huh. daan Moussa Dioum ci benn at. Uh-huh. musul am. ci sama génération. te boobu Moussa ñetti mbër yooyu ñoo nekkoon parcelle boobu ñoom Modou Lo fëlaguñu. boobu ay xale lañu. ñu ngi nekk ci mbapat yi di toj. mais période boobu euh, Dolf. Zos. Mm-hmm. Moussa Dioum ñoo nekkoon parcelle comme mbër yu mag. yàlla dimbali ma ci benn at ma ku si nekk ma daan la jël bu nuróowul ak sa morom. Mm-hmm. mu nekk année bu année bu bu fast comme ni ñu ko waxee. Mm-hmm. année bu neex. Moussa Dioum nekkoon mbër boo xam ne ñëpp dañ ko doon dàkkantele Moustapha Gueye. si Gris la doon jëm. dañ ko doon dàkkanteleeg Moustapha ci mën a bëre. ci ci mën a xeex ci waane. ci foo ko laal mu bëre. wallaahi yaram ay bi yëpp mbër la. donc mi ngi noonu yàlla dimbali ma nag ma am ndam ci kawam. parce que boo ko la doon jëm ma jox la beneen. même Bathie Séras su ma ko daanul woon. ci Gris Bordeaux la doon jëm. donc man moom mus naa taxaw rek nekk défenseur u écurie Fass. parce que yaa nekkoon bouclier wu Gris ñëpp. parce que ah. muy Moustapha Gueye. Mm-hmm. muy Gris Bordeaux. Mm-hmm. képp ku mosoon am ambition àgg ci ñooñu. Mm-hmm. boo dajeeg man yàlla sottilul sa projet. boobu tamit loolu laay représenté parce boobu drapeau écurie man yalla dafa def écurie mm-hmm. Fass avant ma fay ñew mm-hmm. di fa nekk écurie Fass dama mës a supporter écurie Fass mm-hmm. Moustapha Gueye dafa mës nek suma suma euh bëgg Fass ba nga xam mu mu fa gay doon bëré non journée bobu luma nek nek boy journée bobu estat lay dem yendu ji Ibamar dee doon ànd ak Pa Moustapha Tafa Ndiaye mi ngi dëkkoon suñu ginaaw ko Régis 5 bu Moussa dem stade ñu teel a dem ànd ak moom buy installé ñun ñuy nettoyer tribune yi mm-hmm. di arranger siège VIP yi loge pour bu ko defee après ñu mën ñu bàyyi ñu dugg dañ daa yendu stade 9h lañ daa ñëw ba guddi mun naa wax ni combat Tapha Gueye maam Njambaan damaa réer entre Fass ak Médina 24 heures xaw ma fu ma dëkk parce que topp ful bi di daw ba dugg ci secteur bu ma xamul ma réer mm-hmm. tey suma ben grand wat ba benna donc exemple lolu non dama ko faté mu tafaga yi bëre bama ma yalla dem ba ah. may bokk ak tafaga yi regroupement hmm. yalla dem ba bokk ak mom am ñu dem ba am ay lien yo xamné ne amu kenn hmm. donc tout ça aussi bon mi ngi non dal momo don mo don booster sama xol ba tax na may représenter hmm. écrou face musuma bëgg ku laal face musuma bëgg ku wax dara écrou face wala benn mbeuru face bëggante bëgganteeg ñëpp nak ku ci gën a ndaw ba ku ci gën a ndaw sa bës sama bës la mm-hmm. bu dee sama xaalis damay jël def ko ci mm-hmm. bu dee sa ku ma xam wala sama connaissance buy mbëru faas yëpp relation yooyu laa ngi amoon maa ngi ñoom mm-hmm. ñëpp lu ku ci am bës lu ma xam lu baax pour nga am ndam non fàtte naa ko fàtte naa sama bopp ci yow laay nekk ba keroog yàlla di la dimbali muy ci entraînement muy ci ci regroupement mystique euh, connaissance boole la ay nit muy lu ma am ak lu ma amul lépp ma jël jox la. jour combat nga jiite. nekk ci kanam jour ma nekk ci kanam. bu laajee teg suma bakkan ma teg suma bakkan bu laajee yeneen sacrifice yu bët dul gis aussi ma def ko. parce que écrit face moo ma ko jaraloon parce que euh, deretu face moo nekk suma suma yaram. kon Tyson Tapha Gueye jooyoon nga 97. waaw 97 boobu duggaguma woon ci làmb. Mm. boobu maa ngi woon dëkk jàmm gën quartier Abdou Ndiaye. Mm. maa ngi ko seetaanee foofu. Mm-hmm. Tyson non non astafurlah Tyson Mohamed Ali laa seetaanee. Euh, jàmm gën. waaw Tyson euh, Moustapha Gueye mi ngi ma fekk may commencé ñëw boobu ma commencé dellusi si. Mm-hmm. ñibbi si Medina. Mm-hmm. donc waaw boobu nag euh, ci combat boobu nag laa découvrir Moustapha Gueye. Mm-hmm. combat Tyson Moustapha Gueye ci laa découvrir vraiment. luy làmb luy làmb parce que ci laa commencé am passion moo tax deuxième combat Tafa Gueye ak Tyson. boobu nag. bobu mom, vraiment bo ci waxtane ak Abdou gay dina la ci wax anecdote bu am solo mm-hmm. Abdou gay, magu Moustapha gay, bo ci waxtane ak mom ci jour combat bobu mën na la ci wax lo xam sax mm-hmm. di dina la yem torop ci mm-hmm. entre ba Tafa gay waré dugg ci ambulance bi ak ñu war ko évacuer mu dem ma taxaw tém ci buntu ambulance bi def yé mbey gay def yé toute la famille gay dene leen Moustapha gay, du mo dundu di xol muy génné estat bëri ba paré ñukoy duggal ci ambulance muy ñibi ñu nan ambulance ko génné estat duma ko def mbey gay fipp sama kaw ñepp fipp sama kaw ma tej ambulance ne dugg ci ambulance jour bobu ci auto lañ ko duggal yobbu ko hôpital parce que bu gennon ci ambulance bu duggon ci ambulance bobu dem humiliation bu mag la pour écrire face donc loolu la doon éviter ba taxna Abdou gay loolu la ma jappé ba légui fuñu dajé daje la may jëk fatali donc mi ngi noonu pour wone ni man sama sama amour ci Moussa fagay at écrire face mm-hmm. donc voilà mi ngi noonu amour boobu mënon briser ce vide ma brisé na sama vie parce que euh amour la top at sama xol at sama bëgg écrire face ba gisuma lu bari lu doon dal sama kaw man écrire face la jittalon ci lepp mo doon sama priorité ci lepp moo tax na ba situation amé écrire face mu mu def ma choc ba briser suma carrière parce que musuma xalat ci sama aduna génn écrire face musuma xalaat ci sama carrière dem benen écurie bu dul écurie Fass mhm. falaa bëggoon tàmbalee falaa bëggoon mhm. samay ambition lépp samay projet d'avenir lépp écurie face laa ko programmé woon mhm. donc loolu yëpp bu xëyee du jour au lendemain écoulé wu lépp brisé wu forcément euh, dina am cassure bu mag bu am ci ci psychologiquement ci yow euh, ci sa avenir ci sa carrière donc voilà Euh, du ma duggaat ci ay détails mm-hmm. mais loolu bokk na ci lu ma gën a kase mm-hmm. ci suma rythme li mm-hmm. gën a rey sama sama sama sama samay ambition ci làmb ci la bokk li si gën a fës mooy bi lay Gris Bordeaux di génne entraînement écurie Fass loolu bokk na si lu brisé sa yoon Fass waaw parce que nekk na ci loo xam ne xalaat lu ma bett la ndax Gris Bordeaux euh, lu nit mën a wax suma xarit la lu nit mën a wax ñoo màggandoo lu nit mën a wax ñoo defandoo carrière et lu nit mën a wax Gris Bordeaux taxawu naa ko fu nekk lu nit mën a wax Gris Bordeaux défendre naa ko fu nekk ci lu mu xam ak ci lu mu xamul xëy na nag nit kese la parce que nit mooy juum du dëgg tolloo nañ benn moment moom mu nekkoon un combat bu mu mëne woon mais dinaa defendre sama bopp ci lu mën a am accusation bu ñu mën a teg sama kaw moo waraloon parfois ñu foog ne damay acharné wu ci kaw Gris wala damay acharné wu ci kaw écurie di wax lu ëpp déedéet man lu ma wax dama ko xam te dama ko mesurer xëy na dugguma ci ay détails mais je pars sur les grandes lignes période boobu pa nekk na période bu difficile ci sama carrière ma nekk ci problème familial problème mu écurie Fass déjà Euh, bo xolé tay par rapport ak sama parcours fima jaar mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. bokk na ci mbëri njëkk tak un journaliste sportif mu am ciow bu rëy maîtriser lool yooyu yep bokk na ci yo xamne tay perturber na sama carrière parce que tay mëno won am jabar nek ci rew man motax mënu mënuma comprendre Sénégal nga nek xalé bu ndaw am ay ambition tak sa jabar sa jabar bu génné liggéey ñu nan ko loy doyee mbeur ah lan ngay doyee mbeur yow ngay journaliste ngay intellectuel lan ngay doye mbeur ci nit yu bari ay kilifa yu bari yu nekkon ci lamb ji ma xam len ay problème yu bare bare bare di ci am ñu jël mbeur stigmatiser ko lool motax bama baye ma bare may défendre mbeur hmm. parce que stigmatisation bu ñu doon tek ci kaw mbeur dama ko doon dund hmm. sama jabar dem na ba fu mu dem day xat ndax lan jëkuru mbeur la am problème yoy nga nekk ci pareegul problème écrifage ñëwati dalat sa kaw hmm. nga nekk jeune nekk jeune boo xam ne vraiment fi nga jaar sa àdduna ñëw nekk ci yoonu baax bëgg baax bëgg tekki teral say njaboot teral sa waajur ñuy jël ay wax ay mensonge di ko teg sa kaw ba benn jour ma ñëw écurie ñu soupçonné ma loolu nag soupçon boobu waa écurie am ci man bokk na psychologiquement li ray samay ambition ci làmb parce que comme un top wala comme un top té sama aduna fi ma jaar li ma dund musuma nek un traître musuma nek un top luma gëm lo la gëm luma gëmul gëmuma ko hmm. noonu laay dundee ñëpp ba paré am respect ci ñëpp ba paré nek ni ko xamné lu nit mëna tollu ma yëkëti la ci kaw waccé sama bop ci suuf simplicité bobu ndongo dara te kokki def nako ci man hmm. xébuma nit xébuma doomu adama chaque jour man sama bop dama koy waccé ci lu mu ti doon musuma gëm succès musuma gëm ay affaireu star hmm. musuma gëm man may diw wala ma def li man toujours talibé la musa jappé sama légui léegi benn ngoon nga dugg entraînement ñu né le persona non grata. ba wa jour bobu nak sama sama un peu surpris. ju bokk na ci jour yi ma gën a bett sama àdduna ba tax na ma amoon réaction yu négatif yooyu envers écurie Fass ak Gris Bordeaux ñëw écurie Fass toog comme d'habitude bon parce que ba ma bëree yàggul dama bëree Gris waroon bëree suñu combat yi deux semaines la rawante mm-hmm. ba ma bëree ba pare toog une semaine boo xam ne noppalu naa doon am yu ma doon réglé sama après sama combat ak Tidiane semaine dernière semaine combat wu Gris Bordeaux ma commencé ñew entraînement ngone bi premier jour bi ma ñewé un moment donné ma tok entraînement ambiance ma gis entraînement yi arrêté gis ay nit yu waxanté waxanté entraînement yi arrêté fi ma tok dem si yalla si yalla na suuf sedd si kom alsan Jaxate nit nek nit bu mu mësa respecté nek nit yu dëgg di ñaanal yalla yalla xaré ko aljana mu ñew woo ma ne ma balakaay ma ñew mu ne ma euh, vraiment bu ma nga génn entraînement parce que giri ne ne boo fi nekkee du entraîné ndax da nga nekk di ko filmé ma ne ko loolu rek mu ne ma non en plus da nga jege biram ni nga te Modou Lo biram ni nga ci laa door a comprendre problème combat Modou Lo bi la ci lañ may soupçonné te bëri nag Modou Lo préparé ko ci écrit bi aw ma kenn problème soupçonné wu ma kenn bëri naa am ay combat yoo xam ne daanu ñëpp naa ma noo écrit face ñoo la xeex musuma ko wax musuma ko gëm ba jour boobu nag jour boobu ba may ñibi dama doon jooy bakkat oh. joy na ba xamatuma ñëw na ba sama koj duguma sama kër dem geej tok di joy un moment donné bama ma abbas ndoy ni waxé ni balla comme situation yi démé na nii te bëgguñu nga am problème am demal tok ba combat bi passé après nga ñew ñu waxtaan mo bobu tamit bokku na lu gëna dis ci man mbeur di préparer combat écurie ñu dama dem tok ba combat bi jàll ñu door régler problème bi donc loolu bokkoon na loo xam ne bokkoon na ci lu mu mënul supporter ma nangul leen ko nag dem toog di xaar fu wàllante di mujjee gëtëm yàlla def giri bëreeg Modou Lo Modou am ndam ci kawam ma jóg nag yor samay tànk takk samay dàll dirigeant wa dirigeant fu dirigeant nekk ci écurie Fass ma dem seeti la waxtaan ak yow ci situation yi mais toujours retour yi may am daf may gën a permettre que ni euh, doute bu ñuy créer ci man. am na ñu koy ñu ngi koy gën a gëm ñu ñu bëri commencé rejeté hmm. ma dem seeti Tafa Gueye waxtaan ak moom Tafa Gueye ne ma dinaa waxtaan ak bureau bi revenir la ma toog deux jours woowaat ko mu ne ma waaw waxtaan naa groupe bi waxtaan naa këy mais majeure partie bi ñii dañoo bëgg nga toog ñii dañoo bëgg ma dem tak loolu tamit nekkaat loo xam ne ñii bëgg ma toog mais lan mooy problème bi man problème bi au fait laa bëggoon xam at naka lañ koy réglé ma dem ni gis ne ñii jiitu nañ ma ñii dem nañ bay waxtane ma tok wala ma dem hmm. dama ne ah kon ma japp ne ni li problème bi ni am ni dafa mel dañ ci profito pour régler walé yenen problème ndey mbil bi waxtaan ngeen kanti Gris Bordeaux musuñu ci waxtan parce que musul am courage jàkkaarloog man ubi sujet musul am courage ñew pour ñu régler problème bobu une bonne fois mu génn ci mom mu génn ci man man moom totalement génn na ci man parce que j'ai passé à sur autre chose hmm. parce que nekkatuma ci détail yooyu xëy na tey confidence ak jaar-jaar mooy waral tey hmm. may expliquer lii mais sans rancune hmm. aw ma benn rancune wala benn euh, lu ma koy wax lu koy lu koy neex wala lu koy metti histoire la ñuy nettali nu mu demee ba loolu amee période yooyu maa ngi sëy at suma jabaratu tubaab bi donc ma gis ni bon peut-être jabaru tubaab bi ma takkoon euh, ñu bëri dañu am ci man complexe infériorité buñ ma gisee dañuy am complexe duñ ma ñemee ba tax na ci problème yu mel noonu ñu bëri dañ ciy profité pour yàqaale suma der ana mbër ak yor jabaru tubaab ana lii ku ñu ci bëri yàqaale suma der profité ci ku ci nekk ñi ma mosul woon yëpp di ci wax sa der commencé yàqu ñu commencer la soupçonner de toob toujours wala demee ay dix mille problème ñëwandoo sa bopp un moment donné ma ne foog ma replier génn ma waxtaan ak sama jabar mu amoon opportunité pour ñu dem Gabon yàlla def ma demaat ci Abbas président Ecrifaas ne ko grand man instant xat naa ci dëkk bi te lii foog ñu régler ko mu féete boor ñu xam fu dëgg féete mu ne ma dinañu waxtaan ma ne ko man dama bëgg a dem Gabon pour six mois mais six mois wu jotee damay ñëwaat. te bëgg naa bu buñ balaa may ñëwaat ñu régler problème bi ñu féete ko mu féete boor ma dem def Gabon 6 mois 7 mois 8 mois ñëwaat ba ma ñëwee premier jour deuxième jour laa dem seeti Abbas ne ko ñëw naa jóge naa Gabon te moom rek moo xamoon ni ñëw naa ma ne ko nag nañu woote ñu régler problème bi parce que man damaa bëgg dëgg feeñ. Mm. ñu xam ne man du ma tóob parce que loolu daf ma travailler affaire yi am ay lenteur ma toogaat un ba benn jour rek ma dégg. Père malik Gueye génn ci journaux yi def interview deux jours traité ma mak Boy du n'importe quoi at euh, Moustapha Gueye numéro 2 mu metti ma trop man tamit ma def ci réaction ci le kaaw nak grip Bordeaux no bobu non ci travers interview boobu ci ñu bari nak lañ xamni euh kaaw écurie Fass bi ni la démé man tamit ma jël ben combat porte ben combat que ni man dina setal sama der liñ ma takal ni at liñ ma waxal yëpp du dëgg ma jël combat boobu nag nekk ci nekk ci ba senegal yépp xam ni li amoon écurie Fass ay tappale la du lu dara lu fondewul benn mbër moo doon ba préparé combat tiit ci combat bi ku mu gis tam la dëmm hmm. signalé ma ci ba tey gis na ni problème yu mel noonu moo moo moo dem ba law ci Papa Sow law ci ñeneen ak ñeneen ay Mbaye Diouf ak ñeneen ak ñeneen hmm. parce que yooyu moo continuer parce que tey nit bu kenn daree dalee injustice bu dalee ci kenn fenn ñëpp taxaw seetaan ba kooku injustice dal ko mm-hmm. ña ca des ñëpp nañ jàpp ni injustice dina daal seen kaw mm-hmm. du dëgg mm-hmm. tey loolu moo nekk di di xew d'une manière générale donc mi ngi noonu ma nekk ci défendre sama bopp ba Sénégal yëpp xam ni problème bi liy dëgg mooy li Balla Diouf di wax mais tey écurie Fass ba léegi euh, soldé wuñu problème boobu parce que woowuñu ñu wala tooguñu kenn communiqué wax wax ci depuis ba problème bi amé ba léegi mosoo dégg écurie Fass kenn ku ñew wax ci sama problème bobu ñuma accusé won at gir Gris musu nit dañu mësa def tankam tankam lu té té bobu ba légui ñi ngi tankam lu musu ñu ci wax koy moy parce que amuñu ci raison motax nga déposer sa lettre de démission motax période yoy ba mu amé ba ma tafagé né ñi dañu nekk pour pour at ñi nekk compte ci saa si maam sama auteur nak décider pour bay écurie Fass dem bind sama lettre lettre bu jub sax bout ku ma bindal lettre mu bindal ma lettre bu baax ci sama xalat ci lima dundu ci lima xam ci écurie Fass ñom ci tàggoo bu rafet bàyyi bama ma lettre bobu ñu ne no lettre bi war mako ñom ñomay bindal lettre ma signé ko ñu door ma libéré ma ne leen lettre bi ma bindé imposé ko sax bu indi ci problème ci écurie bi mm. lettre bi ma bindé moy valable wala ngeen xam yeen sen lettre tey len ko ba ñu valider lettre bu ma bi nga xam ne tey moom laa bind loolu moo ma jëlee écurie Fass fa vingt ans génnee fa c'est dommage mais vraiment mm-hmm. man damay fier toujours ci sama parcours mm-hmm. parce que du ma dox nit ma ci mm-hmm. dox nit ma ci sama carrière mosuma dox nit taxaw na ma sa combat bi da nga war ragal wala da nga jom sant duma daan ma sant naa yàlla Euh, kenn yabu ma maa ngi góor góorgóorlu takk sama jom di liggéey demuma bureau kenn ñaani taxawaalewuma fenn mm. bëkkaneeguwuma kenn mm. newuma kenn yaa rafet yaa baax pour am dara mm. takk sama dàll di liggéey lu ma am bokk kook sama yaay ji nga xam ne euh, bu ma toogee Sénégal tey am jomu toog fi bañ koo soree tax te tànk mi ngi dund maa ngi ci réew mi te kenn du dégg ni Balla Diouf sàcc na Balla Diouf fen na balu juf wax na fi li balu juf gis nañ ko boîte wala gis nañ ko guddi wala balu juf duggu na ci lu mu waru duggu ak quand même troisième mariage. bon euh laal nga côté bo xamné awma ci chance de trop. Hmm. parce que deux mariages difficiles yi nga xamné tay duggu na ci. Hmm. bon mariage difficile mais yu am banex tamit yu am. yu am yoo jàngat yu bari yu ma ci jàng yu ma yu yu ma yu ma dimbali sax ci àdduna sama taw bi judd ci waaw Mohamed juddu ci ndeysaan maa ngi fàttaliku seen yoonu Casamance ba aussi ma ndey ko ma nekkoon en état ah. donc voilà tiitoon naa ci trop mm. donc voilà mu ngi noonu euh, yàlla boole mag da bon ñoo xam ne bon xëy na amuñu chance ci côté mm. aptitude ak tempérament yàlla boole suñu suñu yoon mais ay nit yu baax lañu muy ndey kuma mi nga tudd wax dëgg yàlla yàlla may ñu bant muy sama taaw Mohamed. Valérie. at euh, at euh, Cécile. Cécile oui. voilà Cécile donc voilà. Mm. moom tamit maam ci suñu mariage sept ans. Mm. maam ci expérience bu yaatoo yaatu comme ni ma ko amee ci suñu premier mariage. donc voilà mi ngi non nak man mom hmm. côté amour awma ci chance. mais nit ko xamné ko am yërmande la nit ubbe ko la non duma tok éternellement seul mais tamit fay laaj un moment donné. Hmm. nga reculer pour meye sauter. Hmm. un moment donné parce que tamit fo duggu guen dugat guen bo guenate ñu ñu sikkel la. damay bëgg vraiment ci lumay dugat mu doon lo xamné vraiment euh, pour le pour samay image d'om pour sama mu nek lo xamné vraiment wax deug yalla dama koy sul wala musul, suul ma donc loolu lay ñaan. moo tax ma jël sama temps mais xam naa ni rek. yàgg yàgg yàlla dina ma boole koo xam ne. vraiment moom laa li des ci sama dund moom laa ko war a moom laa ko war a àndal. ana sabandoor mi ngi fi. sabandoor bi sabandoor bi nga doon bëri. bi moom defe naa ni. <laughs> waaw mu ngi archive mi ngi ci archive yi. Euh, ak yenn gàllaaj yeeg yëpp lépp mi ngi sama yaay. donc lépp la nga xam ne moom laa la bëree muy la ma daa sol. la ma daa takk. lépp mère bi moo ko moo ko gardé. Mm-hmm. gardé ko ci lieu bu suur. Mm-hmm. suur. xam naa ni un moment donné un un jour ki ko war a moom ki ko war a jël euh, bu teewee ah, xam naa ne un jour rek dina dina ko jël euh, pour le moment nag mi ngi sama yaay mu garder bu baax a baax a baax. ah bi si c'était waaw si c'était à refaire donc euh, parce que man j'ai pas grand chose à regretter parce que fépp fu ma jaar jàngal na ma. Mm. et servir na ma ci une benn benn partie ci sama àdduna. donc euh, expérience góor yàlla laa am. Mm-hmm. tey bañoon naa jàng école lool mais tey maa ngi làq nasaraan maa ngi koy bind. Mm-hmm. maa ngi ciy liggéey donc sant yàlla parce que alxuraan boobu bënn sama bopp. Mm-hmm. moo ma permettre lu ma xool mën ko lu ma jàng mën ko euh, lu ma répété aussi mën ko te lu ma bëgg xam dinaa jël sama temps dem gëstu ko parce que nit la boo nit laa boo xam ne ku bëgg liir laa. ku bëgg gëstu laa ku bëgg. xam ni àdduna bi di doxee la. Mm. ku bëgg xam ay nit yu baax la nit yu am xam-xam di waxtaan ak ñoom di taataan. Mm. donc tout ça ça m'a permis aussi ma mm. euh, am benn niveau euh, du ma wax niveau intellectuel mais ma am benn ouverture d'esprit boo xam ne mun naa composer ak ku nekk. gars yi ci lii laa doon andiloon peut-être di ko laaj un jour di nga retourner en face je pense. Hmm? un jour di nga retourner en face. bon la rek mo xam parce que nit mom lepp destin la. Uh-huh. nit mom euh, l'homme propose je dispose. Hmm. man chaque jour damay wax rek fépp fuma Yalla di yóbbu wala fuma ma won ba ba wat ma fa. Hmm. Yalla na fa am njëriñ. Hmm. man toujours j'aime me sentir utile bëgguma dem fenn ndax dama fa wara dem dama fi am parti wala dama fi am baat wala dama. mais dama bëgg fépp fu may nekk rek ci aduna di fa am njëriñ. di fa am jering njëriñ ba nga tax mom la fa nit ñi di uti. ma di ko fa am di ko fa indi. man mom dama bëgg toujours rek fumay may mu doon lu ma yëg lu ma lu ma sentir. mu doon loo xam ne tamit lu naturel lay doon. du doon loo xam ne lu ñuy waxtaane waaw mu doon lu naturel parce que man loolu rek laay dund. man lépp lu may dund bu ma ko sentirul rek. du ma ci nekk. kon naa. jërëjëf Ibrahima. le lion est en train de dormir wala. donc maa ngi ci affaire yu bëri maa ngi liggéey. Ah. ni ma ko waxee maa ngi ak suma entreprise BD sécurité. Ah. Euh, am na 22 éléments yoo xam ne tey. nyom nyom lay partagé ak suñu wërsëgu àdduna ñoom tamit ñu nekk ay nit yu baax nekk nit yoo xam ne tey vraiment ba may liggéey ak ñoom ñii yàgg na ñii ñu ngi door a dugg mais hmm. wax dëgg yàlla yàlla mi ñu boole suñu wërsëg di ñaan mu ñi nga ci BD sécurité lañ yaakaar seen seen wërsëg. Mm-hmm. yàlla bañ ko tas. yëpp mm-hmm. puis tamit ci leneen li ma nekk ak suma yeneen xarit. Mm-hmm. Euh, ku ci mel ni Fallou jaayante aussi borom Louga maa ngi koy nuyu. tamit moom tamit ñuy liggéey ci beneen beneen fànn. aussi donc mu di ci amaat beneen expérience. donc mi ngi noonu sant yàlla. la lion ne dort la le lion travaille. et le lion occupe bien de sa famille. et il est dans son coin dans son tanière tranquille looy tàggatoo man moom ci dama am contentement. parce que lu bari xaw ma ko woon si yow. Mhm. am na tey internet yow yu bari xamuñu ko woon si yow tey xam nañ ko si yow leeral lu bari lan ngay tàggatoo moom frère. waaw kontaan rek. Mhm. Eh, di wax ni sant yàlla bu baax a baax par rapport fu ñu jaar yëpp ba tey. Mhm. ñu ñëw tey ah, di servir ay exemple ay jeunes. tey quartier bi ma dëkk jeunes yi fi nekk yëpp pratiquement mun naa wax ni dañ may fréquenter eh, may may partage ak ñoom expérience bi ma dund pour ñu tegu ci yoon. di dimbali waajur yu bëri ci seen i doom ci seen i éducation. donc tey sentiment de fierté rek ak contentement laa mën a am. ci parcours bi ma am parce que moo ma permettre tey ma mën a am yenn genre forme de réflexion yi ba mën a di di di mën a di gunge ay waajur. ci seen i éducation doom pour ñu mën a mu ñu mën a tegu ci yoon di waxtaan ak xale yi lu bëri parce que xale yu bëri tey. Mm-hmm. damay waxtaan ak ñoom par rapport ak ci expérience at ci li ma dund. pour ñu mën bañ a juum bañ fa jaar par rapport ak ci erreur yi nga xam ne tey moom laa commettre ci sama jeunesse. Mm. ñoom mu bañ leen a dal. Mm. donc sant yàlla bu baax kontaan bu baax. tey li may wax rek mooy gërëm Sénégal yëpp parce que mm. lu ñu doon Sénégal moo ñu ko def lu ñu doon tey Médina moo ñu ko def tey gërëm ñëpp gërëm monde làmb ñëpp tamit aussi gërëm monde làmb ñëpp ñi nga xam ne tey jàpp nañ ci suñu carrière te suñu leen wax merci di profité ci genre occasion yi jaajëfal di leen wax merci ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci suñu parcours ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon ànd di bokk li nga xam ne moo doon ay ambition mm-hmm. tey euh, maa ngi ciy profité di baaloo àq ñëpp bu tey am naa ci àq di baal ñëpp àq ba pare di remercier tout le monde mm-hmm. di remercier Sénégal sans oublier Alioune Sarr le président Alioune Sarr kooku moom kenn du ko fàtte Sénégal du ko fàtte euh. làmb du ko fàtte mm-hmm. kenn du ko fàtte parce que nit la koo xam ne ci côté valeur ci côté ci côté valeur moom la valeur humaine euh, nit la bu ko am nit la boo xam ku ñu la. Mm. nit la vraiment il a su vraiment comprendre le monde de la lutte et pouvoir y travailler. jërëjëf euh, sama gars xol fees xol kontaan bu baax a baax. lii laa leen andiloon Cœur de Lyon, mm. l'homme de face qui a traversé toutes les étapes de l'équipe de face mu kenn xàllilu ko dafa xuus jàll. a face y avait y avait tous les champions confirmés. les Allo, Rombala, uh-huh. Khailo, il uh-huh. y avait les euh, MC uh-huh. pratiquement Nyabali. Nyabali. Euh, ñëpp ngi fa woon vraiment ñun ñu nekk xale ñëw rek xuus. vraiment ci période bi gën a métti ci Fass nag période bi Fass bëree champion. ñu ñëw xuus vraiment. day wax mu nice yow. sama doomu nday la sama waay la Rock Mbalax. sama gaayan la sama sama waay la Rock Mbalax moom. waaw. boobu fekk na la fa la. waaw foofu ba muy ba ko ba wër ndomb Pape Cissé. waaw ba mu koy wër ndomb. mu koy mu koy di ko sotti saw bi. waaw maa ngi woon esaat maa ngi foon. maa ngi foon donc. Mm. Euh, rock mun naa wax ni ma doomu day la daal. balaa yem parce que. mun naa boobu laalee ci rock rek mun naa départ. sama waay jërëjëf loolu moom xam naa dañ koy dagg ba beneen yoon. Mm. tey jii laa leen andi loolu conférence premier numéro mbër bi ma ko njëkk defal mooy Balla Diouf bi te premier numéro sunu làmb aussi. Mhm. Eumeu la deuxième numéro ba man la woon. loolu la woon waaw. tu as une bonne mémoire. waay jërëjëf. merci beaucoup gars yi kontaan naa li laa leen andiloon Balla Diouf Cœur de Lion de l'écurie Fass am carrière bu exemplaire un en or des combats choc choc claf moom la woon bu ñu waxee claf ba claf bi àgg fii c'est moom moom Bac Seeraat la magicien de ginnaaw raay mhm. ah, mu nekk des des moments inoubliables mhm. lamb dootul àgg son apogée apogée boobu kii la moo doon jaay les affiches. Mm. Sénégal di leen wax ni. Sénégal di leen wax ni Iba Kane mii moo ma tuddee Kër de Lion. merci jërëjëf a kay. merci saa fu mu toog la koy wax. Mm-hmm. yow ku gore na merci beaucoup merci mon frère. et yi à la prochaine deuxième numéro bi ngeen ma wax ma kan ngeen bëgg. jërëjëf ñu dem jëli ko def confidence bu toj. merci merci Balla.